aussi képp koo xamante ni dañuy faral di seetaan depuis Saint-Louis Louga en passant par Mbour parce que foofu yëpp leera a ngi fa hmm. euh, Dakar waxaale ma ko mu mujj nag euh, pikin gi nga xamante ni moom suñu pikin la hmm. exceptionnellement des personnes yoo xamante ni dañuy seetaan hmm. ah ku ci mel ni moom Modou Diop nga xamante ni tailleur la moom dafay euh, li nga xamante ni moom mooy teleem daf ko kal rek ci leeral TV. Oh. donc Modou Tailleur un clin d'œil à toi. moo sonaloon grand boubou bi bi paase. waaw bi paase mooy sama tailleur Modou Tailleur. mais grand boubou bi sonal la ma woon trop waxuma yow la sonal de mais man la sonaloon trop. <laughs> Modou Modou Diop depuis euh, ko ci Espoir Tali bu bees. maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu aussi waa waa Icotaf Tali Icotaf ñëpp. Mm, mm. mais aussi di aussi di nuyu waa Ligue euh, li waa Ligue Pro. Ah. parce que ñoom it euh, ñoo ngi ñuy déglu. te ah. ñoo ngi ñuy seetaan. Ah. donc dana rafet parce que nag dompat sax jaari ci sat la bokk. kon bu ñu waxee ñoo ngi ñuy seetaan c' est tout à fait un plaisir quand wax ko fii ci biir euh, émission bi tey dalal ñëpp jàmm. rawatina nag ñi nga xamante ñooy ganu tey ji merci beaucoup waa Ligue Pro comme ni nga ko waxee waa mouvement navétane bi tamit ñu ngi leen nuyu mais au passage tamit euh, di nuyu suñu yeneen invité yoo xam ne jotoon nañ fi jaar euh, ku ci mel ni kii euh, Tandian suñu suñu papa suñu nijaay baaba Tandian gis nañu acte bu rafet bi nga xam def na ko fële ca Saint-Louis doon may ay panneau ñu koy jaajëfal bu baax baax xam naa image yooyu incha allahu rabi ñu koy jàllale demain ci suñu édition yi incha allahu rabi kon tey au comme ni ñu leen ko waxee rek di leen wax lu jëm ci wàllu Euh, football ak tamit les résultats championnat première et deuxième division bi ñu démarré ci euh, week-end bi Il aussi euh, des informations ak les Lions du Sénégal avec leur club euh, ce week performance yi nga xam ne def nañ ko wala bokk seen club mais it danañu wax lu jëm ci wàllub euh, lu gën a yaatu wàllub basketball ak suñu invité yi nga xamante ni tey ñoo fi toog mais jaar yi dama lay bàyyee rek nga nga nuyoog invité yi. ma bàyyi invité yi nuyoo mais avant tout dañuy nuyu wala boog dañ naan merci beaucoup tey ki ñu solal tey euh, gis nga mais li mu ñu solal positive men lañ ci bind P ak M mais P ak M bi dafa mel ni sama tour la Pape Maguette. daa mel ni sama tour la <laughs> seetlu ngeen lool. mën na nekk de yéen Pape Maguette ngeen di doxantoo. mën na nekk mën <laughs> alors entreprise d'impression euh, surtout euh, support euh, muy tableau mural bâche t-shirt décoration intérieure ak ki tamit extérieure. ay tasse étiquette carte de visite affiche ak itam flyers lépp la ñuy defar kon mi ngi noonu seen euh, contact euh, mi ngi noonu euh, mën ngeen ko am ci fi nga xam fa la place nekk Médina rue onze wetu UCAD Mbow Mbow Mbow Ismaïla 4 arobase gmail point com mooy gmail ama numéro téléphone 78 016 66 02 wala 76 026 66 02 Positive maine Sénégal mi ngi noonu Pape Maguette Ba bu la nee nga ni Pape Maguette Ba bu la nee nga ni Positive Men Positive maine mooy moom li muy wax mooy lépp rek dañ koy jëlee positivement maanaam na lépp positif ñu lépp positif. loolu tax li muy def yëpp positif. waaw moo tax li muy def yëpp positif li nga def positif na gis nga yaa ngi. soo tey c'est très joli waaw tey saa waay grand bu la maye woon. Ah? <laughs> tey kay xamul tey moom dama laa summi. tey dama la summi positif men moo fi jaar bu jaari bi. mën na ko def bu rose mën na ko def euh, ah rose rose ak blanc un clin d'œil Ismaïla Mbow Ismaïla Mbow moom mooy defar t-shirt waa du xam nga ko Tafa voilà kon kon kon mooy doon moo leen ñuy defar t-shirt Lacoste lépp kon day bokk ci ci sponsor ci partenaire. non suñu partenaire kon kañ jeex na mat na. mat na kon léegi suñu partenaire la. ñu nag moom ba ba kii. Coupe d'Afrique. ba fële ne nu mu tudd. Abidjan. waaw beneen dëkk Yamoussoukro Yamoussoukro waaw kon nag boo préparé parce que takk na du bagage yi. te am na billet yoo xamante ni jot naa ñëw. yow Yamoussoukro ngay nekk man ma nekk Abidjan. man yow duñ bokk fu ñu nekk. waaw day neex bu mu parce que bëgguma yi nga wax nii bëgguma kii jaar yi nga jaar <laughs> alors Ismaïla Mbow mi ngi noonu merci beaucoup encore merci beaucoup yow yaa ñuy ba fu ñu jëmaa ah, incha allah rabbi ah kenn du yow jaar yi ma bàyyi la nga introduire invité yi. waa am Pa Maguette donc euh, juste pour euh, dugal suñu ay invité prési ñu lay nuyu. di la dalal naan la bienvenue ci suñu plateau Leral Sport donc dalal ak jàmm. donc salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. di leen remercier ci invitation bi. donc mhm. di nuyu Pape Maguette. Mhm. ak consultant bi. Euh, de même que suma rakk ji toog. Mhm. te muy aussi un grand joueur Moustapha. donc di rafetlu aussi. invitation bi di leen si remercier. voilà moom mooy euh, moom mooy euh, Yatma ma jaw président AS Ville de Dakar muy le grand club mi nga xam ne def na ay performances yu am solo ci wàllu basket euh, ci Sénégal mais keneen ki. keneen ki mooy Tafa Mbaye Tafa Mbaye ailier 4 lay mm-hmm. joué la nekk Dakar Université donc finale coupe du Sénégal bi amoon entre Ville de Dakar ak Duc moom moo nekkoon meilleur scoreur bi. donc euh, moo waroon ñëw depuis semaine passée. Hmm. man sama bañ hmm. nee indaale mais. yow yaa verrouillé woon loolu. pour ñu wàcc ko maa verrouillé woon affaire yi daal maa leen si si man la woon fëtif bi si man la woon mais Tafa <laughs> nuyu nañ la ziar nañ la yaa ngi gën a xam yegg si si jàmm. merci beaucoup Diary bonsoir à tout le monde maa leen di nuyu yéen ñëpp ñu toog si plateau bi. di nuyu sunu président bi di président ville de Dakar. Hmm. waaw di leen jaajëfal yéen ñëpp. Uh-huh. yaa ngeen jëf. voilà Tafa Mbow. Tafa meilleur scoreur à Dakar Université Club Tafa Mbaye. Mbaye man lu tax maa ab Ismaïla Mbow bi ah, dëgg Ismaïla sànq li ngay wax nag mu ngi ci de li nekk sama xel mais ëpp li ah, nekk sa bopp waaw li nekk si bopp bi moom xam naa la yëpp la waxoon kon ñu koy jaajëfal ah un jeune moom i tamit euh, di euh, wane boppam li def euh, loo xamante ni ay performance tamit ci basket Sénégal moom itam ñu koy encouragé bu baax a baax ci li mu nekk mais nag bu ko waree def da ko war a def parce que booy banlieue banlieue la ñoo bokk suñ moo jox ñoo bokk suñ géejawaay ah. hmm? booy géejawaay la

alors Doudou Mbaye ma bàyyi la nga ñëw ci lig 1 bi mais aussi on a constaté euh, démarrage bu baax avec euh, les clubs comme le Jaraaf GFC euh, ak Teungueth FC ñoom itamit euh, démarré nañu seen seen seen championnat. tout à fait euh, c'est juste. Mm. démarrage bu baax la parce mm. que xam nga nag gars yi dañ toog ay weer yu bari noppalu. Mm. jóge hivernal tànk yi day xaw a diis donc compétir. dafay xaw a metti hmm. xëy na ku mel ne dafa dina xam li ma wax parce que hmm. ak jaari parce que ñooñu euh, xam nañu yoon bi hmm. donc du coup voilà su su su démarrage bi demee nii aussi warul betti kenn euh, ñu daaw rek a démb rek euh, tënge jaraaf ak les verts du jaraaf ak Guédiawaye football club stade Iba Mar la woon euh, hmm. dañu mujj match ñu un but partout un but hmm. partout e que c'est ñu fàttali leen rek c'est Guédiawaye qui a ouvert la marque et puis euh, à la dernière minute les toutes dernières minutes ci la Jaraaf égalisé donc il a échappé de belle euh, échappé belle la def moom Jaraaf mais teewul am na un point yi décroché na un point te moom moo dalaloon Guédiawaye donc un but partout la ñu def hier Teungueth FC dafa dalal Euh, jamono bu Fatick bii doogee ñëw ci Ligue 1. Euh, daaw Ligue 2 la nekkoon ren mu ñëw Ligue euh, Ligue 1. sénégalaise donc Tëngéej FC daal di koy dóor. 2 buts à 1 ñu fàttali nag premier but de cette année. Mm. waa Tëngéej FC ñoo ko dugal dès la cinquième minute. Mm. loolu aussi day baax day baax ñu wax ko. Mm. ñu fàttali leen aussi que ci Ligue 2. Euh, Oslo di équipe de euh, Ligue 2 sénégalaise mm. moom it dafa dóor Seneps bi ngi xamante ni daaw mi ngi woon euh, Ligue 1 sénégalaise daf ko mm. dóor moom it démb deux buts à un mm-hmm. tey AS Pikine dafa dalal Wakaam mi nga xamante ni dafa yéeg ren dóor mm. ko un but à zéro d'ailleurs xam naa ne déglu ngeen sax en ah, exclusivité en direct avec les deux présidents hmm. Mamadou Modou Gueye en direct ci ci Leeral FM hmm. ak euh, Alfred Bathily hmm. ci Leeral FM dégg ngeen leen et puis dégg nañ aussi les deux coachs Tafa Seck moo yor Wakaam et puis Senghor euh, du côté de de de de Pikine donc un but à zéro le mujjee Euh, Casa Linguère Casa Linguère deux buts partout. Hmm. Euh, Kolda la woon. Hmm. Euh, avec l'ouverture du score par les Samba Linguère. Hmm. ñoo jëkk dugal après. Euh, Casa égalisé. Mm -hmm. Linguère dugal deuxième but. que deuxième égal but égalisateur wu Casa bi dafa kas Mm -hmm. maintenant les gens parlent de. de VAR. VAR parce que ñiinaan dugg na ñii naan dugg mais xam nag loolu tax VAR war a ñëw. Euh, tout à fait normal. Ah. Alors à Mbour. zéro bi euh, partout diggante jàmbaar d'abord ak Gorée. un but partout la. et puis zéro but partout entre Stade de Mbour ak. Euh, le tenant du titre Génération Foot. donc loolu moo am foofu. Euh, donc mu mel ni match yu su bëri dafa danoo nul euh, Duc moom dafa dóor. Euh, Kër Madior Kër Madior 3 buts à hmm. ñuy félicité c'est en ligue c'est en ligue sénégalaise hmm. voilà. donc ñuy fàttali suba lay jeex avec euh, Sonacos. Hmm. Euh, Dakar Sacré-Cœur. Et, et, puis de ci Ligue 2 bi aussi euh, Renaissance bu Yoff. contre Ndiambour de Louga. voilà c'est ça. wala mais mais ñaari résultats yu ma bëgg ñu def ci benn taxaw seetlu. mooy NGB ñaari tali. waaw ñaari tali dafa dóor Agel euh, boobu la fàtte résultat boobu la fàtte euh, en déplacement à Rufisque ñaari tali bi jógee euh, di troisième division troisième division ñëw Ligue ñëw ren Ligue 2. Hmm. dafa fekki Agel bi nga xamante ni daaw xaw tuuti les ultimes. Euh, minute. mu wàcc ci la ci ci ci la ci la ci la ci la yéegul. parce que dafa waroon yéeg. dafa dafa maintien. waaw non non daaw. moom moo waroon yéeg. Ah, dafa waroon dafa waroon yéeg Ligue 1. Ligue moo jàmba moo ko wakaam ñoo woon mm-hmm. point. Mm-hmm. mais ñu xool euh, goal différence général mm-hmm. ñoom nag dañu waxoon ni goal différence particulier lan lan waroon lan waroon xool mais ligue bi fii dafa ni goal différence générale la ñuy xool alors bu ñu xoolee goal différence général ci la wakaam yéeg mais bu ñu xoolee goal différence particulier Agel moo waroon yëpp moom moo ko dooroon aller hmm. retour nu match nul donc ren hmm. premier match am hmm. euh, ku mel ni ñaar tali door que deux buts un ça fait mal et que les les les poulains de di coach du coach euh, Taban euh, nee na den defarwaat bu baax a baax pour reculer pour mieux sauter et puis amitié qui bat HLM deux buts à zéro waaw xam nga Ndour défaite pour HLM amitié FC ñëw fekk si ko door ko deux buts à zéro waaw xam nga HLM c'est une équipe boo xamante ni def na ay preuve am. Hmm. dem na sax ba Ligue des champions. HLM dem na fi ba Ligue des champions. Euh, équipe bu mag la. HLM hmm. équipe la bu am ay jaar-jaar yoo xamante ni bu génne ay footballeur yoo xamante ni kenn dootul naataable yooyu footballeur. bari na mën na comme Saasi. waaw voilà comme Saasi. waaw monsieur monsieur Diallo monsieur monsieur voilà. Ah, <laughs> voilà mi ngi noonu. Hmm, ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp jaar nañ fa. <laughs> et que. Euh, ñëpp fàttali nañu euh, Alou. Mm. le gardien de but. Euh, bi nga xamante ni nekk après bi mu jegee HLM. dem na dem na dem na équipe nationale et tout. Hmm. donc euh, mën nañ si cité ñu bari mais hmm. bu ñu waxee ñooñu rek yam si HLM équipe bu mag la hmm. mais. bu fàtte ni euh, depuis euh, daaw. ba léegi HLM dafa nekk ci ay jafe-jafe quand dafa nekk ci ay jafe-jafe ba daaw ñu bëri jàppoon nañ ni sax. du du année bi. bu ko bu jeexee day wàcc mais heureusement. Dieu fait bien les choses yéeg na. mais Aziz Diop. Aziz Diouf le président. nee na dañuy defaraat. te en construction la ñu nekk. Mm. donc jàpp nañ ni bu nu dellu see wala fi lekk li première journée rek la parce que euh, loolu aussi Tafa Seck wax na ko tey ci mm. ci ci réaction bi muy def ci Leeral FM mm. nee na euh, bu bu bu équipe bi am défaite premier match rek nga nga ni baaxul. non non championnat noonu nekk te championnat comme dafa gudd. day jël neuf mois. donc lépp xaj na ci. nit ñi dañuy gars yi dañuy demaat defaru jiwaat donc. Euh, bu nu dellusee dana gën a neex donc jàpp naa ni c'est vrai que nag amitié dóor HLM moom surprise bu rëy la kenn xaaru ko woon mm. mais nag bon football moom le football est fait ainsi mm. noonu lay deme des fois da ngay da ngay da ngay def teg euh, équipe favori mm. favorite alors que équipe boobu ñëw passé à côté euh, tokaar bi ñëw dóor ko donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a wax xam ni aussi championnat bi daal nañu xam ni ah du course de vitesse à ku ci def vitesse nag yaay jëg da ngay da ngay teel a bàyyi hmm. ñi ñi nga xamante ne nag course à fond lañ ko def hmm. ñooy ñooy mujjee ñi nga xamante ni mooy plateau voilà euh, ñu def benn aperçu bu ndaw balaa ñuy euh, soobu ci waxtaan bi carrément ak ci li soxal wàllu euh, basket ak li xewoon démb démb jën yëg nga actualité internationale démb ci côté sport actualité internationale internationale di dominer àdduna Sénégal gi Afrique gi yëpp di ko bàyyi xel Francis Ngannou ah waaw d'accord boxe alors moom lañ doon euh, seetaan démb àdduna bi yëpp mais seet foog naa yaa ngi ko doon bàyyi xel seetaatoo ko. waaw. ah waaw parce que c'est presque un donc du coup. tout ce qui ah. l'Afrique félicitations à Nganou félicitations à l'Afrique il a honoré l'Afrique mm-hmm. dix euh, xam nga moom euh, kii lay def nu mu tëddi UFC lay def mais bi mooy premier combat box mu jël Fury. nekk premier combat mu tenir ko euh, ci dix rounds dix rounds c'est pas c'est pas facile te Fury c'est un très très grand boxeur et euh, ku ku weex la ku ku graaw la te ku saay-saay la am droite bu doy waar mais à un moment donné euh, Ngannou yóbbu na ko à terre mais moom reprendre na ses esprits ba jóg mais ni mu gañee moom Fury ni mu gañee neexul benn africain il des africains yoo yoo xam ne mi ngi fa woon il avait le soutien de euh, Samuel Eto'o fils il y avait Cristiano Ronaldo bu nekkoon foofu euh, box bi foofu Arabie Saoudite lañ ko doon amale mais lu jëm ci wàllu koppar ak ay entreprise yu mag moo taxoon ba combat bi demee nii ay système la nag ay mbóot la ci biir moo tax ils ont donné la victoire à Fury au lieu que ñu jox ko à nganu ay dil la ci suuf quoi ay dil yoo xamante nii ay milliards lay génne des millions et des millions ba ay milliards moo tax dem mu demee ni mais Afrique bi yëpp ñoo scotché woon di seetaan le combat boo xamante ni moo nekkoon l'actualité phare démb euh, félicitations à nganu loolu mënuñu woon jàll te duñ ko wax en tant que africain boo xamante ni àdduna bi ñëpp ñu ngi ko doon supporter Doudou Mbaye. waaw c'est fierté la c'est c'est toujours euh, une fierté pour nga gis doomu Afrique. Mm-hmm. muy def yenn jaloore yi. Mm-hmm. c'est tout à fait normal. Mm. Euh, mais aussi, il euh, n'y pas de surprise que mu perte match bi. Mm. Euh, boxe bi lu tax mooy que à chaque fois quand ça se passe comme ça. Mm. ñun les grands perdants ce sont les Africains. le pourquoi parce que comme li nga wax. Mm. dafa am dafa am ay. yeneen intérêt yu yeneen yu ci am. xaalis yu ci génn et cetera et cetera. comme le cas de sa lu mu tudd. Euh, Mané. ak euh, ak Ballon d'Or. Mm-hmm. donc euh, mm-hmm. des fois gars yi dañ lay. Mm-hmm. bi mu ko bi ñu ko waree indi sax boo boolewul ko woon ci diis yi. après lañ ko indiwaat ñëpp jaaxle woon. donc pour dire que ni si ay intérêts yu taxaw la. mais aussi ay capitaux. yu tax yu bari. xaalis alal yu bari dañ ciy teg loo xamante ni. yow mi nga xamante ni yéen yéen nekk au devant de la scène mënu leen def lu dul te nag wolof nee na xaalis doxul jàmm. xaalis doxul jàmm xaalis doxul jàmm fu mu dugg moom boobul sonn la mu bëgg da koy am. surtout pays pétrole lañ. voilà même su fekkee sax li mu bëgg. Mm. Euh, su ko amee ba pare après nag nit ñi doo doogay wax bi voilà dafa def lii dafa def lii mais mais dana ko am. Mm. donc fierté la ñu koy félicité bu baax a baax. Mm, xëcc bu dag bu bu daggul dana dikk. Euh, dana toll foo xamante ni parce que on se rappelle avec euh, Mohamed Ali. xeex nañ ko fi ñaata yoon mais finalement bi muy décroché ceinture. Euh, ceinture kii bi. Hmm. Euh, door bi. ah di nekk le meilleur au monde tayatuñ ko woon. Hmm. mënatuñ ko woon téye. Hmm. il fallait jox ko ko parce que moo fi mënoon donc loolu la. Euh, na continuer ay entraînement am te xam ni ce n'est qu'une première comme ni nga wax léegi. c'est une première waaw une première. surtout mu tenir dix voilà dem ba dem ko à terre. voilà ñu dem ba def déci jël décision mu déci mu nekk décision boo xamante ni c'est partagé ah ku ci nekk mu ngi jox. waaw donc donc nañ ko féliciter te xam nii commencement la. et hier y' a LeBron Jones bu bu réagir. Mhm. à travers Instagram mu ne lii moo tax euh, il n'aime pas euh, bëggul bëggul lu bëri di seetaan sport Afrique di joŋante ak euh, réewu nasaraan yi mu ne des fois match yooyu moom du bëgg di ko seetaan parce que au finish. ni ni ni koy gisee nii lay demee dañuy joxe victoire bi ñu ñu weex ñi. ah non vous vous rappelez de la de LeBron James am démb lu ko métti trop fàttaliku ah. ngeen ni penalty wu euh, Sadio Mané bi ci coupe du monde. bi nga xamante ni à la dernière minute dañ ko mm-hmm. waroon tirer. Mm-hmm. pour Sénégal minute bee buñ ko tirer. Mm-hmm. Sénégal bu ko dugalee équipe bële day toog. ils ont jugé nécessaire je me rappelle Habib Beye lu ne def na ko ci donc ça moom ñun. on est coutumier des faits. Mm. donc lu moom toujours ñooy añoo du sacrifice voilà moom toujours moom dañuy sacrifier. Mm. dañuy sacrifier mais nag euh, ne nekk na ñoo xamante ni duñ taay duñ sonn duñ mm. da duñ damm dañuy ñëwaat aw même niveau dañuy ñëwaat ci top bi. te par force da nga nu ci boole kenn mun si bañ a boole jaari seetaan nga combat bi. mais lan ngay wax en tant que ñun sax. en tant que africain ñun sax xam naa ne nganu nganu dégguñu <laughs> ñun nganu dégguñu. asaare nganu dégguñu. mais xam naa xëy na xëy na on sait jamais ah. et puis les gens diront que ni y a y a une télévision sénégalaise boo xam. qui parle de Ngannou waaw waaw waaw on sait jamais ah peut-être. peut-être ñu ngi nekk en direct Cameroun. wala non c'est important parce que tu parles tout à l'heure de de de de euh, alors que Eto'o bi ñuy def Ballon d'Or bi. Mm-hmm. il faisait des des des Africains. yu voté yu voté Mané alors que au moment où d'autres Africains dem nañu voté ñeneen ak ñeneen. donc euh, rien que pour Eto'o rek. Mm-hmm. ñun dañu war a soutenir. waaw waaw mi ngi noonu euh, LeBron Jones mi ngi noonu moo nganu jox jox ma ko ABC li nga def neex na ma trop ah. parce que actualité bi moom kenn mënu ko woon rate raté parce que euh, c'était l'Afrique ñëpp ko doon supporter euh, te euh, dafay yóbbuwaat beneen niveau sport sport Afrique. loolu moom loolu moom loolu moom mënuñu si leen mm-hmm. loo xam ne nii dafa am leneen lu làqu si ginnaaw. Mm. pour nga pour nga pour ñu revenir décortiquer ko dafay metti mm. loolu mënoo ko partager mm. juste que da ngay xool rek xam ne ñun buñ ñu buñ ñu joxee defet mënuñu réagir dañuy accepter rek xëy commentaire si wax si li ñu naqari li ñu si neex et tout ça mais à part ça moom mënuñu si leen parce que comme am na leneen lu nekk si ginnaaw ñoom mm. ñoo xam leneen li nekk si ginnaaw. Mm, mm. donc loo xam ne nii moom. mooy loolu mënoo si dara moom mënoo si dara. la loi du plus fort et la première euh, la loi du plus fort est toujours la meilleure. tu as vu donc voilà mooy loolu. mi <laughs> ngi noonu booy xool sax gars yi yu si bëri ñu ngi ñu ngi ciy def ay. am na daal am na ay am na ay info yu ciy génn sur le sur le plan international am ay information yi génn am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi nekk ci ginnaaw comme li ma leen di wax euh, tweetu LeBron Jones Doumbé Lineker ak euh, ñu ci bëri ñoo xamante ni mhm. euh, tweeté nañ ci wax ci li leen naqari kon ça veut dire affaire bi ampleur bi mu amoon dafa nekkoon ampleur internationale et puis euh, ñun noir yëpp nekkoon ci ginnaaw nganu doon ko jàppale yàlla na suñu joueur bi toll foofu bu ñëpp di ko coow comme fi mu nekk ni Wemba Nyama la ñuy coow français yi xamuñu ni ñuy wax rek Wemba Nyama Wemba Nyama Wemba Nyama Wemba Nyama Wemba Nyama premier match am mu am defet ñoom ñëpp ñu noppi <laughs> mi ngi noonu tweetu LeBron Jones mu ngi noonu merci beaucoup merci beaucoup ADC mi ngi noonu tweet baa ngi noonu gis ngeen li mu ci wax mu am lu ko lu ko naqari trop démb LeBron Jones am na ñu bëri ñoo xam tamit def nañ ci ay ay tweet ah, euh, mu nekk loo xam daal affaire bi daal naqari na ñu bëri euh, surtout Mike Tyson Mike Tyson tamit mi ngi woon foofu moom tamit am na lu ko naqari euh, ñëpp ñu ngi crier au scandale après la défaite de Ngannou mi ngi noonu maa ngi koy xool fii nii sama machine ay info yu bëri instant yi nii. Ah, ñu ngi ciy wax bu baax baax. booy booy jongante te ak arbitre bi sax far. Hmm. xam nga jongante boo far la jëm. Hmm. Hmm. ah may. jongante boo xamante ni yow ki lay arbitre sax dafa farul ak yow. de l'autre côté. mais tu fais tout ton maximum mais tu ne vas technique boo mën a am comme ni ko jaari waxee. technique boo mën a am forme boo mën a am. Ah? boo mën a def. du du du jëriñ dara parce que mm. fa ngay mujjee mooy dañ lay jox defee. Mm. voilà mm. donc. ma nga doon Mike Tyson tamit wax na ci maa ngi doon liir lii. mais xam naa loolu moom mënuñu ko am mu ngi noonu léegi nag ñu soobu ñu ñu soobu suñu actualité du jour ak suñuy invité basketball alors tey ñi ngi am euh, comme invité euh, président AS Ville de Dakar mm-hmm. alors président ngeen def euh, ngeen def jéego bu am solo daaw ak ren ah. temps yi moom nee nañ moom basket. les huit ans waaw mais daaw ak ren dañu def ay ay performance yu am solo surtout ren ren jël ngeen ñaari coupe mais coupe yi ngeen jël ñeenti coupe moom lañ mettoon en mais coupe bi da ngeen ko séddoo ak ñeneen ak sama sama sama sama xarit bii nii <laughs> sama sama sama sama doomu ndey ah da ngeen ko séddoo ak ñoom alors bu ñu waxee euh, AS Ville de Dakar nekk club boo xam ne c'est un club euh, mythique boo xam ne biñ ko biñ ko biñ ko biñ ko kiiwee biñ ko créer yàgg na yàgg na sax mais seen premier trophée je pense que ne en 2019 ngeen ko njëkk a jël su ma juumul mën nga ñëwaat 2017 voilà c'était en 2017 2019 euh, ngeen jël rangale 2019 2021 2022 2023 tamit ngeen jëlaat yeneen ñaari trophée euh, yoo xamante ni euh, ren seen diggante ak benn club bi nga xamante ni yéen a séddoo ren mbir mi daal <laughs> alors boo ñëwaat ci ci performance su ville de Dakar d'après sa création création bi nan la nan la nan la ñëwee ville de Dakar pourquoi ville de Dakar parce que bu ñu waxee ville de Dakar dafay mel dafay am appartenance appartenance bi dañ naan mairie de Dakar moo ko moomal boppam. Mm. loolu bëggoon naa ñu am ci tuuti leeral. voilà merci beaucoup Pape Maguette en fait euh, pour def un peu d'historique hmm. euh, équipe bi c'est depuis quatre-vingt-quatre lañ la équipe basket bi existé woon bon hmm. temps yooyu mi ngi tuddoon ASC municipalité ASC municipalité donc hmm. moo fi nekkoon euh, voilà nekk équipe nekk di mais le plus souvent l'équipe joue en D2 donc euh, voilà c'était pas assez performant donc en 2014 Donc nous, quand on est venu au niveau de la mairie, on s'est demandé, mais il y a une équipe qui est là, qui porte les couleurs de la municipalité. Pourquoi pas avoir une commune nous jongante avec les, les plus grands donc ci cadre boobu lañ ñëw changé tour bi donc euh, mu bañ a tudd municipalité de ASC Ville de Dakar mais conseillé essentiellement par les agents municipaux ah donc man mi leen wax agent municipal la ak sama yeneen collègues yi ñoo réfléchir ñu teg équipe bi bon période boobu nag ñu am chance chance boo xam ne aussi il faut que ñu wax ko c'est parce que Khalifa Sall était maire de Dakar moom dafa bëgg basket. Mhm. bon parce que il ma dama rappelé toujours mu naa ma man je suis un déçu du football Caire 86. laa yu donc si la ne moom basket mooy kii woom. Mm. voilà mooy passion mu mu accompagner ñu nag ah, parce que dem nañ ci construction bi c'était assez difficile parce que équipe yu mag ñoo fi woon mhm. voilà di partager wu les trophées saa ñu demee ba war a egg bon on a des problèmes. Mm. donc il nous a il en en mettant à disposition budget bu essentiel. Mm. bu ñu permettre ñu mën a recruter les meilleurs. Mm. donc euh, sur le cadre joueur aussi sur le cadre technicien donc si lañ liggéey. donc euh, jéem a les meilleurs en termes de techniciens les meilleurs en des joueurs. voilà développé wu développé wu ba ba résultat yi ñëw ci jigéen ñi. ba résultat yi ñëw ci jigéen ñi donc on a. pensé parce que je me je rappelle aussi que. ñun sa équipe bu jigéen rek la ñu amoon. Mm-hmm. donc après en deux mille dix neuf. si la ñu deux mille dix neuf je pense ah si lañ créé équipe bu góor bi. donc créé équipe bu góor bi bon ba mu koy créé sax beaucoup de gens n'étaient pas pour parce que disant que boo jigéen ñi ñu ngi soog a jug je l'ai nit ñaari tànk lay doxee munoo am. équipe bu jigéen te doo am équipe bu góor su tu mm-hmm. veux réellement mm-hmm. triompher donc si loolu lañ liggéey équipe bu góor bi aussi jox ñu ay satisfaction quand même parce que euh, deux ans lañ def deuxième division après yéeg première division. Mm. donc première année bi ñu yéeg première division dem play mm. donc xam nga loolu aussi alors équipe yi jógee D2 le plus souvent bu ñu ñëwee. boo moytu play down la ñuy jouer donc ça aussi liggéey boobu am première année bi ñuy ñëwee dem play off donc chaque année ñuy renforcer chaque année aussi ñuy renforcer ba ren équipe bi mu ngi bokk ci quatre premiers yi donc on a été éliminé en demi-finale du championnat par l'AS Douanes bon góor ñi aussi joué na ñaari finale euh, perdu bu njëkk bi Douanes Coupe Saint-Michel lañ ko joué Douanes gagné ñu un point bu mujj bi mooy coupe de Sénégal ñu doon joué ak AS Duc euh, waa Duc aussi mm, gagné ñu donc ça veut dire que y a du performance qui est là qui se fait mais bon plan kii la projet la boo xam ne nag aboutirugul mm. ñu ngi ci ñu ngi ci parce que li gën a métti mooy c'est pas d'aller en haut mais de se maintenir et pour se maintenir rek dafa demander quand même beneen politique bu am importance ah. en termes d'organisation en termes de voilà de de de de de de d'avoir des qualités ah. parce que loo am projet projet te amoo joueurs yi ko yu ko mun a porter ah. day compliqué donc ñu ngi ci donc c'est ça amul benn secret ah c'est juste les autorités politiques nous ont donné les moyens ñun ñu jël ko maximiser ko pour mm. quand même avoir benn équipe bu kii mm. parce que tamit aussi li nit ñi di fàttale culture locale en fait dans les dans les compétences transférées sport da ci bokk peut-être ville de Dakar da fës dafa fës parce que mm. créé na équipe basket buy jouer élite yooyu mais les communes doivent accompagner la politique euh, sportive au niveau de leur de leur de leur de terroir parce que parce que parce que naan ku ci ñu ci mel ni kii man comme euh, ñeneen ñoo xam ne tamit ay sportif lañu di di suivre sport. Mm-hmm. bu ñu gis euh, performance su équipe ville de Dakar. dañ naan non mairie bi nekk seen ginnaaw dañu am moyen dañu am xaalis. Mm. dañuy recruter les meilleurs la ñuy recruter mais meilleurs yooyu noonu ñuy recruter damay gis ne euh, balance bi booy xool euh, côté homme yi c'est pas la même chose ak ci côté ci côté femme yi. waaw loolu laa expliqué. Hmm. jigéen ñi ñoo fa nekkoon. équipe bi équipe jigéen kese la woon. équipe jigéen la ñu amoon. donc ñoom ñoo njëkk def performance. Hmm. donc mais ji góor ñi. c' est plus compliqué parce que góor ñi. Hmm. bañ leen kii matagul dix ans. matagul dix ans ñoom bañ bañ exister. donc alors nga fekk fi équipe yoo. xam ne politique bi politique bi ni ñu defee ci côté jigéen ñi. non si et pourtant ni ñu koy defee ci côté góor ñi loolu laa bëgg a. loolu laa bëgg parce que booy dafay dafay dafay nekk toujours au rendez-vous euh, ci ci final yi ah. chaque année booy xool. Mhm. moo tax sànq may la daaw ak ren ngeen def ay performance yu am solo mais boo xoolee góor ñi mhm. li ngeen di dégg ñuy ñuy dem final bëriwul ah. waaw moom laa lay expliquer góor ñi c'est plus difficile. parce que da nga fi de un. Mhm. mooy que basket góor ñi ak basket jigéen ñi bokkul. chez les garçons c'est plus difficile. parce que foofu presque équipe yi différence bi du bari trop. mais boo xoolee aussi en termes de vécu jigéen ñi li ñu. li liñ fi ñu fi am békki hmm. di góor ñi am amaguñ ko hmm. mais waaye parce que jàpp naa ni jigéen ñi elles ont souffert hein, avant ah bien sûr. parce que man je me rappelle du couvrir naa leen ba dañ leen di éliminer gars elles ont souffert nam sonn cest à li ñu naan. Euh, loo loo xaaru du la fa fekk. donc ñoom dañ fa xaar lu bari. galère quoi voilà dañu galère. parce que jamono yooyu dikk ñu ngi woon ci diggu ndëndëm. waaw Saint-Louis basket club. GIA aussi ñoom année yi juddu sax dafa fekk année ñoom yi ñu yi ñu yegg si dafa fekk euh, GIA sax convention naaj mais Duc ak Saint-Louis basket club nekk ci kaw. Duc mooy jël année bi Saint-Louis Basket Club mooy jël année bii. cest à te ñoom ñaar sax ñooy final. donc ñu souffert ci ba am ci expérience ñëw. jàpp naa nag expérience boobu ñu am. Hmm. moo tax de 2017 à 2023. Hmm. ñu wane seen bopp. contrairement aux hmm. garçons yi nga xamante ni jaaroo dafa defagulu seen ñoo ñoo ñoo ngi nekk seen petit bonhomme de chemin. voilà. dañuy dañuy def cest à fa jigéen ñi jaaroon. Mm. ñoom fa lañu toll jamono ji. voilà mm. elles ont perdu beaucoup de finales. les les les les les les les les garçons perte finale bari jooy ba sonn. mais je me rappelle que si da doon wax da ngeen di jàng en construction ngeen nekk dana ñëw dana ñëw mais tey jii ñoom ñoo taxa ci kaw. Mm. aujourd'hui nag ñoom fa nekkoon ci ci ci jaar jaar ak ci yoon jàpp naa ni. góor ñi fa lañ fekk fa lañ toll nii voilà. donc il a parfaitement raison ah. affaire bi moom euh, kii la. Euh, évolution la. Mm. c'est-à-dire que munoo munoo ñëw tëx tëb ren tey rek ne da ngay kii. Mm. mais je pense que chaque année donc on remarque quand même y a am na lu positif luy am. day am expertise ak expérience waaw am na lu positif luy ñëw. et je pense que bu ñu teggiwul suñu tànk je pense que gars yi nañ leen fekk si kaw quoi. <laughs> non li wax moom y' y' a pas d' chose euh, loo xam ne mën nañ ko si yokk. Mm. parce que noonu la fa demee. Mm. parce que moi j'étais là-bas. Mm. mais garçon yi comme ni ko Père Doudou waxee. biñ fi ñëwee yàggul. parce que bu Ville de Dakar bi ñu créé garçon. yàggul yow nekkoon yow yaa jox secret bi waa dëkk mën leen gagné deux matchs yi. <laughs> ban secret da leen xam. nga xam prési xam joueurs yi jox waa Duc secret bi ñu ñu gañe leen ñaar yi mujj yëpp sama doom la sama man moo joxe secret yi góor yi sax góor yi sax moo jox loolu rek wane na ni jigéen ñi galère nañ parce que moom yi bu fa jaaree nday seen jaar fa kaneen ak kaneen jaar fa mu lay wan ni kon ñoom yàgg na togg bi yàgg naa yàgg yàgg na ci taal bi dañoo yàgg togg dañoo yàgg togg daamata daaw tamit te jaar na fa voilà Fat Dieng Fat Dieng Fat Dieng sama rappel mu koy recruté France la jógee voilà c'est ça de la France gars yi naan jeexal la moo tax mu dellu si joué bi mu joué ville de Dakar moo ko permettre mu dem Rio. mu dem Rio coupe kii euh, Jeux olympiques. Mm-hmm. après si la defaat na presque ba léegi mi ngi joué. Mm-hmm. donc donc loolu plaisir la parce que aussi c'était pas indiqué xale yi daanoo xalaat ku jóge France ñëw fii mm-hmm. mais léegi c'est devenu banal parce que bon les savent que ni maintenant que voilà le basket quand même le dit yaa Mathilde Mathilde voilà jóge na ak voilà ñëw joué GIA mi ngi nekkoon en France voilà ah, ah. donc donc léegi xale yi dañ koy dañ koy def même na ko mu hmm. toogee France amul équipe dafa hmm. dellu si Duc basket hmm. après mu demaat donc voilà je vois pas le mal mais comme ni ñu ko waxee rek équipe moom doo ñëw ñëw rek nekk au voilà ñun biñ fa nekkee dañ doon finalu dem nañ fi Saint-Louis doon ñu final vingt cinq points bi ñuy ñibbi ñu yoon bi ñu jaar hmm. donc xam nga loolu yoon bi gudd trop si yéen Thiès la woon mais yoon bi ah, dafa mel ni maa ngi woon ci final boobu je me rappelle maa ngi woon bi final bu ah, métti ah. sax final bu sax dóor doon jouer meneuse jour boobu je me rappelle parfois damay rencontrer lool ko ne ñu doon jouer meneuse ñoo doon jouer pivot ndaamay ay ndey seen ay elma ay raki ñoo doon jouer pivot pour te dire que ne bu defet ñëwee rek ñëw et ñu ngi doon jàng nga dem jël fii jël gauche jël droite hmm. donc loolu hmm. balaa nga am cohésion dafay yàgg hmm. donc fi ñu moment yi ñu nekk nii nag cohésion bi dafa dem ba maîtriser que même ku ñëw ku bees sax da ngay daaw a adapté wu parce que li nga fa fekk la surtout euh, deux ans yi passé waxuma sax ren mais deux ans yi passé nga xam ne grand HLM lañ def ay ñoom ki nekkan ah amoon na ay oiseaux yoo xam ne dañoo am expérience kon ne ñooñu buñ fay jóge hmm. liñ fa bàyyi comme ay kuna yooyu mm. loolu dafay rester mm. parce que xay xale lañ yoo xam ne màgg nañ ba pare mm. expérience bi dootul dañ ay ndumbe yi ay joueurs yoo xam ne am nañu expérience ba pare problème lu mu métti métti ñoom xam nañu fi ñu koy fi ñuy jaar pour régler problème bi je pense que ne loolu moo leen indi ba état bi c'est c'est quelque chose à féliciter parce que c'est pas facile liggéey bi métti na que ce soit dirigeant ou joueuse mais juste problème bi mooy saison bi ni mu guddee ndax amoo leen yenn yenn jafe-jafe comme yéen dirigeant yi muy que ce soit Ville de Dakar ou les autres équipes mais yéen sax tax amul yenn jafe-jafe yoo xam ne rencontré ngeen ko parce que saison bi dafa gudd de trop. ba pare tamit waaj ci voilà <laughs> oui sur le plan financier c'est c'est parce que bon parce que normalement saison la war a kii mais. non c'est Ville d'accord xam nga le problème financièrement du du du non en fait il faut aussi bien sûr <laughs> Ville Dakar euh, municipalité la comme yeneen. mu jël fi non non non mooy que mm-hmm. Mm-hmm. quand tu reçois ton budget da koy da koy prévisionné sur saison bi tu dis bon on démarre en décembre on mm-hmm. termine en juillet termine au juillet ñu yokkal la ci août septembre ba octobre donc tu mets trois mois de plus de dépenses ouais. donc tu vois am ba loolu boo ko budgétiser wul mm. amoo les moyens tu es obligé dem uti ko day dem uti ko léegi uti bi aussi mm. ça c'est day compliqué day day day metti mm. mais bon parce que moo on dit basket bi maa je le dis je le répète boo sport yi ne Sénégal yëpp tu peux demander fédération yëpp jour basket yi li ñu leen di fay fay ñu ko ci beneen discipline mm-hmm. les salaires sont élevés. les jours bon, sont moo ci football Sénégal ah non non ça suffit ah non ça suffit. waxumala mais tamit. moo ko ah, comme ni Tyson doon wax naan que ne. Hmm. time gagne sa morning je ne sais pas. Hmm, man à ma personne je hmm. parle à ma personne. parce que nit ki loolu dund rek loolu ngay xam je peux dire que ne ñu yokk salaire yi ba muy egg yenn niveau yi moom si la bokk. moom président moom moom si la bokk parce que tey. période bi mu ñëw hmm. tey ndey seen caaxaan jëlewu ko ndar indi ko hmm. Dakar déedéet man ndar la ma jële jëlewu ma bopp saint la ma jële indi ma Dakar hmm. Ramata daawo Saint-Louis la ko jëlee ak ki jógee France. Pas Dieng mën nga koo jëlee ba France indi ko fii si ay deux cent. il a mis les moyens quoi il a mis les moyens quoi. elle n'a pas compris fi may wax c'est-à-dire que je dis que waxuma lu bon la c'est une bonne chose. Mm-hmm. c'est une très bonne chose parce que nit kiy def sport da ci war a dund. effectivement sport bi te nous on se réjouit mm-hmm. que yenn xale yi. ah di gagné loo xam ne sport. est-ce que comprendre nga ko. non non non comprendre non non. comprendre parce que man loolu laa doon coach yow yaa comprendre moom nee na moom nee na. yow yow vous loolu. waaw effectivement ah ok li ñuy fay fay joueur yi. dafa dafa bëri. moom mu ne yow yaa ko njëkk def defal loolu. waaw loolu lu baax la non je veux dire que loolu loolu yow yaa def lu baax. loolu lu baax la loolu loolu lay expliqué noonu. c'est une bonne chose mais mais lan moo ko war a accompagner. loolu la ñu war a réfléchir. ban modèle économique moo ko mm. war a accompagner. est-ce que on doit toujours rester basket basket amateur. Mm. est-ce que toi tu. xalaat nga club boo xam ni minimum tu dépenses cent à cent cinquante millions annuellement. tu gagnes le championnat on te donne ren sax tane na ne leen dix millions la avant on te cinq millions. ah mais euh, président président. oui nag daan wax leen. Uh-huh. loolu euh, tu gagnes la coupe d' Afrique CAN. oui la CAN tu gagnes la coupe d' uh-huh. milliard lañ jox. alors les équipes nationales par exemple ñun bi ñuy coupe d' Afrique dépensé noonu dépassé ay deux millions di dem. mais tu as tu as tu as tu as un milliard. waaw mais foofu laa expliqué non non mais waa Afrique dañu xam nga xam nga xam nga loolu toujours euh, xam nga euh, oh, voilà solution ci loolu mooy politique boobu noonu gis nga monsieur Mbaye il faut pas que toujours ñu naan ñun Afrique bu ñu xeeb suñu bopp africain bi bu demee Europe il se comporte comme l'européen ah da ngay gis ku fi ku nekk fii yenn comportement yi ma Afrique bu demee Europe du xalaatu ko fa def mm-hmm. Mm-hmm. donc ñun pour pourquoi ñu naan toujours c'est Afrique non mm-hmm. on doit aller fi ñee toll ñu toll fa waxuñu ñu fay les même salaires waxuñu mais aujourd'hui tey euh, y a un système économique qui est là les entreprises qui sont là y a les sponsors qui sont ouais, mais ouais. comment nan la ñu war a def pour attirer ces gens là pour ñu ouais. financer le sport le financement du sport ça ça pose problème mm, mm, mm. tey aujourd'hui euh, bi moi je dis que véhicule la bu baax la bu am solo la. parce que mm-hmm. sénégalais yi dañ ko bëgg. te mm-hmm. Sénégal dëkk dëkku basket. et ça commence en puissance. waaw Sénégal dëkku basket la booy yi da ngay gis si koñ yi ñëpp dañuy jouer basket. donc am na popularité. Mm. aujourd'hui système économique bu ñu war a teg en place pour permettre d' abord mu intéresser annonceurs yi. Mm. que yeneen sport ni mu leen ni mu leen intéressé aussi teg benn championnat bu attractif pour permettre aussi que Marius Ndiaye di fees. ñëpp di ñëw comprendre nga. Hmm. moi je dis j'aime bien des fois. quand on joue avec le Duc oh, tu sens vraiment parce que loolu mooy kii bi mooy motivation bi. tu vois que voilà am attraction nga xam xëccoo bi voilà loolu les entreprises dañ ci loolu amul ci sport. Hmm. je vous dis que du dem fenn. voilà euh, dañ dañuy ñëwaat léegi ci loolu noonu parce que yaa ngi wax thèse boo xam ne il faut ñu ñu approfondir ko un hmm. peu parce que tamit booy xool la basketu Sénégal léegi booy xool euh, niveau bi mu commencé am léegi ak ampleur bi mu commencé am léegi. dafa mel ni kii basket bi ak football bi dañ koy joxante lu football bi def basket bi da koy bëgg def et le basket dafa am loo xam ne daf koy chercher et puis y a les jeunes yoo xam ne ñuy commencé di émerger par nànk nànk nànk euh, te li ñuy am ci li nga xam moom mooy 2022 bi passé ak la nouvelle équipe euh, du Sénégal de football les jeunes ñëw bàyyi ko fu nekk ñëw ñu defar mayonnaise boobu comme ni ñu koy waxee da ngeen yàgg liggéey ci côté jigéen ñi ba tey moo leen may ngeen di ay coupe ba ci football bi Sénégal bi noonu lañ ko yàgg di liggéeyee. chaque année ñu jooy. chaque année ñu jooy di saaga. Mm-hmm. di rëccu di dax entraîneur ñu def lu ne ñu def ko. Mm-hmm. mais à un moment donné 2022 on a vu des jeunes yoo xamante ni commencé nañu génn. Mm-hmm. te doo xam nan la ñuy génnee ah da ngay gis kenn génn fii kenn génn benn club en Europe feneen feneen feneen. et puis ñu liggéey ci bu baax a ba loolu indi indi coupe mais parmi ces jeunes euh, y a un jeune boo xam ne moom itamit c'est le meilleur marqueur. Euh, bu lan ko scoreur coupe du Sénégal c' euh, est Moustapha booy Guédiawaye <laughs> booy ndox ma <laughs> alors Moustapha alors euh, début basket bi fan la Guédiawaye nga baskette voilà moo nekk ndakaar Université Club ah, ñoo mm. nekk champion ah, ci coupe du Sénégal ak coupe de la Ligue non coupe du Sénégal lañ jël. <laughs> devant ville de Dakar. ville de Dakar ah bon yéen yéen ñeen ville de <laughs> non ñi yeb nañ leen de. non c'est moom laa wax looloo ñu. xanaa ah, booy bi ah koy kii ci suuf da nga koy da nga koy. ma booleeg waa <laughs> samay xarit lañ. a rey di. waaw mais moom nii tey. mu lay xool nga lay xool pense lii dafa dafa am solo parce que local bi am na ay talent. am muy moom ay Pape Daly. Mm-hmm. Jean Jean parle ñoom Baara ah yow Dumbia bi ah, bi nekk suñu capitale équipe y' a des talents extraordinaires fii. waaye man ak jaari ñoo koy jaay de. <laughs> waaw d' accord kon naa leen seet jaari kon naa leen seet jaari moom a génnee ma jël. eh jaari non waa DIG dama leen bëgg a xamal dara président DIG eh, ay ay waa DIG yëpp coach. dama leen koy xam ne jaari consultante la fii jaari bu ñëwee fii solo solootul yëre duc loolu moom mais jaayuma jaayuma xaaral jaara fii soo fi nekkee looy daw ah, lu ñu wax moom ngay wu leeral nga jeex na tak ah. soo génnee nag waaw bu la neexee nga nekk élément wu bi mu sol suñu maillot la sax ah. te maillot bi P am moo ci nekk Pape Maguette moo ci nekk <laughs> jeex na positif positif la positive lan eh. positive mind nañu nekk positive bàyyi noonu. <laughs> alors Moussa Fall di comprendre laaj laaj na la question bu amee bon place commencement bi fan la. bon commencement bi géej mën naa ne géejewaay la. Hmm. di saluer sama formateur de passage hmm. muy Ablaye Ndiaye. 16 hmm. basket. fa laa démarré yaakaar naa 2000 2012. waaw 2012 laa démarré. fekk maa ngi nekk xale bu ndaw. amoon sama benn. cousin bu doon bu nekkoon suñu kër. Hmm. doon dem école 16 di fa entraîner di fa jàng basket. Hmm. xam nga ma koy topp chaque jour nag affaire bi yaagoon ma neex. Hmm. ba benn jour sam gis que nii affaire bi neex na ma. mu ne ma pourquoi pas ma dugal la foofu inscrire la utal la ay équipement et nga dem commencer entraîner. waaw foofu la démarrer. ma ñëw commencer di entraîner nag waaw comme début yëpp rek. sotti quoi. cadet quoi. waaw débutant. Mm. compétir moom quoi d'accord d'accord débutant. débuté quoi. Mm. les. bases bases. ay voilà voilà c'est ça. waaw ñëw sob comme débutant yëpp rek. di mm. dem terrain <laughs> n'importe quelle heure. Ah, di dem di ñëw di entraîner et tout. ba yaakaar naa 2016. je crois si laa si laa gis aussi sama yeneen xarit yu ñëw di fréquenter Duc. Mhm. di jógee Guédiawaye dem Duc tout le temps. en plus coach bi aussi daf ma daan gis. Mhm. Euh, Pape Malick Goudia bi mooy euh, coach jigéen ñi. Mhm. daan ma gis naan ma da nga am potentiel et tout affaire yooyu pourquoi pas nga ñëw compétir. ma ne ko xam nga rek nga xaw a ragal yooyu noonu ne ko mais dinaa ci waxtaan ak sama coach ak sama samay parents et tout ba mu ci waxtaanee ak ñoom aussi ñu ne ma waaw pourquoi pas nga dem xool. ma ñëw DUC 2016 nekk cadet en même temps ñu ma doon surclassé junior aussi quoi ma euh, di jouer cadet année boobu yaakaar naa ñu toog après mooy ñu surclassé ma junior ma jël coupe nekk champion junior quoi en 2016 beneen anne bi ma waroon du junior coach parfait aussi ma koy saluer de passage mooy coach senior yi. ñun mmh. aussi ñu koy voilà moom xam nga yàgg sollicité coach bu jaay aussi. Mmh. pour que ma ñëw di ñu ma ñu mën ma sur classe senior may jouer. Mmh. waaw ba 2017 si la yàlla dogal ñu sur classe ma senior si la njëkk a joué sama première coupe coupe du Sénégal aussi la woon. contre douane. contre waaw mais finalement douane daf ñu mujj gagné. waaw yàlla dogal aussi man maa jëloon trophée fair play bi. fair waaw. année boobu laa démarré commencé nekk euh, di jouer senior duc. Hmm. yeneen année yi aussi. Hmm. ba ren jii nii waaw mu nekkoon parcours bu bu xawoon a métti nag trop. Hmm. parce que des fois nga ñëw fekk fa ay say grand yoo xamante ni ñoo la doon mën fuuf. nga nekk tamit di jàng. di jàng pour mun a yegg si niveau bi ñu yegg. daawoo jouer di toog ci banc bi des fois nga leen di côtoyer. et tout. ñu lay jàngal ngay dem di xam di ñëw. ba yàlla dogal nag nga commencé ma commencé di jouer ba trophée yi nii ak. Mm-hmm. Euh, yeneen ak yeneen commencé ñëw nii quoi. Mm-hmm. voilà c'était un peu ça quoi trophée nga individuel sa premier trophée la mooy fair play bi. waaw ah 2017 nga wax ah. 2017 waaw 2017. Mhm. alors en tout ñaari trophée nga mës a am yow personnellement individuel. individuel ñaari trophée laa mës a am. Ah, waaw mais bii nii ak bële ne. ak fair play bi ak kii bi. ak waaw ak meilleur marqueur bi waaw. loolu. Ah, mhm. waaw c' est juste man li may laajtee. xam nga mhm. xam nga c' est important ñu wel nii. toog parce que euh, euh, auditeurs yi euh, wala téléspectateurs yi ak téléspectatrices bu ñuy seetaan. bu ñuy dégg bu ñuy wax Duc effectivement. di tic au tac c'est spontané. Mm. da ngay xalaat des étudiants. Mm. Mm. sa xel ci loolu la njëkk dem. am déet président yaa donc j'ai envie mu poser question comme moom comme comme comme Diary. est-ce que moom étudiant la laata muy dugg foofu wala dañ ko jël parce que dañu gis performance ak technique ñu dugal ko foofu parce que loolu dafay il faut que mu. parce que rek da ngay def étudiant étudiant moo waaw étudiant rek moo fay loolu important à c'est laay laaj est-ce que étudiant da nga dem jàng def nga da nga def ba sa cycle normal yi dugg euh, ba nga fay dugg est-ce que fekk na nga nekk étudiant wala danoon dañ la jël parce que li ngay def mën nga ko bon ba may ñëw dik euh, boo fekk na amaguma defaguma sax terminal quoi mhm. waaw dañ ma gis nii may joué benn coach du gis ma comme ni ma la ko waxee léegi Pape Malick Goudiaby gis ma mooy joué sama jeu intéressé ko mu ne ma pourquoi pas nga ñëw Duc évoluer ci boobu temps yooyu fekk moom mi ngi yoroon junior yi aussi hmm, fekk junior yi la yoroon hmm, mu ne ma pour pourquoi pas nga ñëw ñu xool ba xam hmm. en plus ba ma ñëwee aussi rëccuwu ma ko maa ngi ñëw fekk fa samay morom te li ma doon wax yëpp gis naa ko que amoon naa benn potentiel boo xamante ni waroon naa kaa mën a ñëw wane Duc voilà noonu la demee mais ba ma fay dugg nekk moon étudiant. ok nekkoon étudiant euh, mais am bu fay dugg amoon na contrat wala amul contrat boobu aussi amul woon contrat. non amul woon euh, contrat parce que ba ma fay dugg petite catégorie laa fa duggee. petite catégorie waaw. mais li ma bëggoon rebondir. Hmm. mooy hmm. le travail important bi ñuy def ci banlieue bi. wax na tur sànq Ablaye Ndiaye. formé na xale yu bëri tey yoo xam ne peut-être ni nga xamuñu ko man am na ku ma ci yor Khady fay moo ko moo ko formé. Mm-hmm. Didi Didi bi nekk. Didi di waaye waaye mm. moo ko moo ko moo ko formé. Mm-hmm. am na xale yu bari moo leen di formé donc encore. même Duc am na élément Ami Collé voilà Ami Collé Camara donc c'est moom géej géej waay la nekk. géej waay la nekk. ok des gens qui travaillent beaucoup la petite catégorie di xale yi. après xale yi dem. bon c' est normal parce que voilà peut-être yeneen club yi. mooy ñuy dégager. pour moom mooy defar di di voilà moom voilà mm. donc donc c' est des gens yoo xam ne yoo xam ne. Mm. pense damay profiter aussi. Mm. ci ci plateau bi pour que nit ñu gën leen accompagner. parce que il faut beaucoup de choses positives pour le basketball. malheureusement ils n'ont pas de soutien. mais euh, président dana baax ñooñu rendre César à ce qui appartient à César c'est-à-dire ñi ñu former itam dana baax ñooñu léeg-léeg ñu gëstu parce que. mais bien sûr gis nga gis nga sportif ah. ak journaliste ak ñeneen ñi gars yi nee na mooy métier bi gën a ingrat parce que des fois la plupart du ñëpp nag. parce que mmh. foo fee foo dem di nga fekk. des fois di nga gis nit ku la forme wala ku defar ba pare fàtte nga ko ba affaire bi baaxee. Mmh. donc c'est genre personne la non am nga loolu mooy li ma wax peut-être ñun eggaguñu foofu par exemple sur le football. Mmh. club formateur bi dañ lay indemniser bu jour bi ko transfert bu demee jeu ji pro et tout. club formateur bi voilà waaw bon ñoom c' est club c' est des clubs formateurs parce que mm-hmm. club la. Mm-hmm. donc loolu xëy na nañ ci yegg gum bon on n'est pas déjà amaguñu bon. espérons que dañ ci yegg nga xam ne. waaw mais pas individualité mooy. voilà non xam nga mécène. voilà mécène yorul yorul yorul sport. Mhm. sport da am dafa war a am une politique économique du sport am xam nga comment le financement du sport comment attirer être attractif c'est-à-dire que sport li mu laaj dañ ko ci nanguwul def parce que sport du fo xam nga Sénégal dañuy def dañaan po la xaw ma institut po lañ ko tuddee mais mais ak maintenant sport ku ko gis boo gisee les arabes di ci def ay milliards. di gis yeneen dëkk yi di def ay milliards c'est parce que xam nañ facteur de développement la facteur économique doy waar sax il faut que ñun ñu yegg foofu mm-hmm. il faut que ñun ñu yegg foofu te loolu vision la rek mm-hmm. c'est pas trop compliqué il faut que ñu ko ñu ko séq mm-hmm. toog waxtaan xool ñu koy doxalee pour yegg ci voilà mais alors euh, Pape Mag euh, Tafa Tafa est-ce que est-ce que ak saison bi nga def ren est-ce que am nga am nga benn yoon chance pour que Euh, am ay ay ay équipe extérieure yu la contacter. waaw j'ai j'ai pas eu pas mal de contacts en ce moment mais jëlaguma sama benn décision quoi parce que saison mi ngi soog a. sa bi sa manager. manager manager daa ñëw de. non Tafa n'est pas n'importe qui ah. non manager bi wala kii garde rapproché bi la. non mooy manager bi comme la de mooy sama mooy sama lépp. mooy sama lépp mooy sama lépp comme am nga ay sollicitation daal saa mhm. mais pas Maguette comme. waaw tonton Doudou li mu wax. que ne mhm. joueurs yi nga xam ne dañuy jaas centre. centre génn au moins mhm. bu ñu demee ñu fa mais ñooñu lu ñu fàttaliku fàttaliku équipe ñooñu déjà. yow tukki bi dee koy dégg rek. tukki tukki am na joueurs ak joueurs yu bëri yoo xam ne. li ñuy am foofu. toogoon fii wala beneen équipe fayoon na leen lu ëpp lool. mais fii moo gën. Hmm. mais dafa dafa am importance nit bi luy liggéey nga xam nga xam ne kii mu ngi liggéey nga remercier ko comme ni ko président Yane ma defee. Hmm. kooku man dama ko xam. Hmm. parce que dama daan dem si terrain du jouer en petite catégorie comme ay contre ñoom ami collé affaire yooyu daan tase ñun ak ñoom. Mm-hmm. dafa former pas même révélation ren moom moo ko formé. révélation en garçon je vais revenir sur ça. fa la jóge mm-hmm. tafaam yi fa la jóge jug jigéen ñi am na Ville de Dakar comme ni ko président waxee am na joueurs yoo xam ne moom moo leen liggéey maanaam boo. tënkee li mu liggéey yëpp. Mm-hmm. mën nga si génnee sa équipe révélation sa équipe maanaam sa relève boo xam ne ëllëg tey di Kane mun nañ compter si moom pour équipe nationale. Mm-hmm. am na yeneen moroomam yoo xam ne ni ñu ngi si. Mm-hmm. mais il est temps man je me dis pas que mais la fédération doit réagir pour genre yi par rapport voilà ak genre centre yooyu nga xam ne ñu ngi liggéey Pikine basket. pareil mm. la même chose depuis des années ñu ngi liggéey. ñu eh, ngi bu ku ci mel ni ki Momo ak Rufisque. voilà coach Momo Rufisque ñoom ñëpp dañuy liggéey mais amuñu c'est là où je te la mm. petite catégorie ba léegi ñoom ñu ngi compétir. Mm-hmm. tëjëguñu ba léegi. tëjëguñu ba léegi te xale yi dañuy jàngi. yow waroon nañu à def tout. tous les moyens hmm. ba championnat bi buy jeex petit hmm. catégorie sax na teel a jeexal parce que xale yi dañuy jàngi am na xale yoo xam ne seen yaay yi duñu nangu di leen bàyyi ñuy dem di hmm. basket samedi wala dimanche te war a xëy lundi bi jàngi am na yenn yoo xam ne ni c'est pas les présidents mais loolu li comme li ma ko waxoon ak Baba Tania c'est la c'est le travail de la fédération parce que ñoom ñoo fi nekkal basket bi boo jiitee da ngay xam ne yow yaa jiite am na yoo xam ne ni tey président bi yow yaa koy accompagner pour mën laa tegal Mm-hmm. mini basket mini cadet junior mm-hmm. bay egg si senior mais bu fekkee ne amuñu base tamit à chaque fois dañuy wuti ay siyaara ñëw indi pour ñu gérer ñu. parce que euh, y a des y a des y yi fi nekk ah muy côté. góor côté jigéen ñoo xamante ni ku ci mel ni kii ñii ak ñeneen ak ñeneen. soxla wu ñu dem mooy li yaatu ma doon c'est-à-dire sa pépinière bi am na fi. oui am na fi c'est-à-dire joueurs yi joueurs yi. Hmm. c'est-à-dire talent bi aussi voilà talent bi. seen le hmm. mot exact talent bi hmm. aussi am na fi. mais malheureusement. ni ñu ko war a utiliser. comme ni jaar yi wax noonu lañ ko utiliser wul. par contre euh, comme ni ko coach euh, président waxee léegi football bi demewul noonu. football dañ koy utiliser comme ni ñu ko war a utiliser. mais fii nag malheureusement da léeg-léeg nga gis sax ku fi ku fi ku fi ta ku fi kii yow nu mu tudd temps ku fi bi euh, période am jeexee. c'est-à-dire dana évoluer def tout toj. Mm. basket bi ba ba bàyyi. kenn du ko xam la malheureusement hmm. parce que politique bi nu war a def effectivement moom la ñu deful te politique boobu tant que defuñu ko hmm. te pourtant wax na dëgg parce que présentement nii basket li muy fay hmm. football local fayu ko ah, loolu moom il faut que ñu ñeme ko wax parce que ñii li ñuy laal mais football local bi bu leen buñ ko doon laal kon du duñ génn di football ay ay Gambie ñun ngeen di football ay ay ay ay ay ay Guinée. ay Soudan Guinée Soudan Congo voilà c'est ça. Ah, duñ fa dem ay ay Libye mais c'est parce que dañuy am ay salaire yoo xamante ni yu doy waar la. tout à fait le contraire ci basket bi. Hmm. basket bi mosoo toog dégg ni équipe ba danoo grève parce que kenn fayu leen salaire doo ko dégg. Hmm. ci basket non loolu doo ko dégg ci basket. dan ma yoreel dan ma kii gars yi fan suñu salaire yi ñëwagul wala suñu. fayal ah, hmm. doo koy dégg lu bëri doo koy dégg parce que ñëw. li ñuy def dañ ko respecté ba nga xamante et puis dafa leen di jural aussi ay ay mbir yoo xamante ni en tout cas au niveau du club ñoom dina am satisfaction maintenant au niveau national léegi nag moom moo des. Hmm. parce que au niveau national il faut parce que man li may jëkkul d' accord mooy que li ñuy def yëpp xoolal kii mi ngi wax léegi ay ñaata budget ñaata millions ay hmm. cent millions. Hmm. ay deux cent millions soo paree boo jëlee coupe coupe du Sénégal wala nga jël championnat du Sénégal doo génn waaw doo dem fenn doo dem doo dem jongante ji fenn. Hmm. mais loolu nag kan lay encouragé. du encouragé kenn. imaginaire bi baal commencé am. Hmm. mais jour yu yu bari dem nañu. waay hmm. donc tey jii ñu te pourtant Champions League euh, sur le plan basket am na. mais ñun ba léegi duñ dem. donc loolu il va falloir fédération taxaw ci. ñu xoolaat ñu def les assises du basket. parce que nag c'est important ah. parce que nag basket football di fi ñëw en deux mille vingt hmm. basket rek moo fi moo fi mos a ñëw te léegi basket bi sax mi gën a commencé émerger comme ni ñu ko waxee ah avec euh, les jeunes alors Moustapha lan lan mooy lan mooy ambition bi Moustapha dafa bëgg toog fii wala Moustapha. priorité mooy génn bu ko ville de Dakar jëndeewul dix millions mu dem <laughs> man ëffaluma nag de waaw non waa dig <laughs> ëffaluma ëffaluma waxantewuma dara ak kii maa ngay door a gis tey maa ngay door a gis tey bañ na am na sollicitation non non am na sollicitation am na sollicitation bitim la wala enfin euh, pas bitim réew cest à la wala Afrique <laughs> bon génn Afrique nag wax dëgg yàlla mais bon. ñu ah, ngi ci ñu ngi ci liggéey quoi. waaw suñu ambition. mooy comme bépp basketteur rek. nu muy rêvé génn réew mi xam nga. dem jouer ji extérieur dem jouer ji extérieur jéem a décroché. nekk international international surtout. jéem aussi xam nga li ngay liggéey nga gis si revenu bi quoi. waaw parce que xam nga fii basket local bi moom. bu buñ ko waxee buñ ko waxul yëpp ñëpp xam nañ ko dafa xaw a metti quoi dafa metti dafa metti dépenser deux cent gagner dix jolof jolof dafa metti dafa diis waaw wax dëgg yàlla nekk si ginnaaw eh, eh, eh. jot na jot na tey ngeen ci te li ci gën a li lu am solo la loolu li ñu wax ni lu am solo parce que ak mu ubbi jaari wax xam nga dafa jot tey hmm. ñoom li nga xamante ni moom la ñuy def de 2012 à à à 2023 mais ñu commencé ñu gis résultat ñu gis résultat loolu di dëgg la. loolu moom dëgg la dafa dëgg ci war dëgg yàlla wax dëgg yàlla. ñu ñu fay bori tuuti aussi. ngeen ah, fay fay bori. ak maire de Paa ne ko li wax c'est la vérité. la vérité parce que ça revient wax léegi ah. il faut ñu am benn politique boo xamante dañ koy def pour gën a valoriser waat ñi nga xam ne moom mooy. Ah, moom mooy talent yi. bu ma nee valoriser mooy mooy mën nañ jàpp c'est un ensemble mais euh, équipe yu bëri petite catégorie yoo xamante ni am na sax duñ leen duñ leen duñ leen jox paas ah. effectivement c'est un ensemble léegi ñooy seen bopp di jël ay car rapide ay ñaga jaay di demal seen bopp c'est un ensemble comme je di que mm. fekk ñu ngi am statut amateur mm. dina compliqué pour mm-hmm. ñu kii il faut que ñu am championnat d'élite tey aujourd'hui am na club yoo xam ne comme ñu ma la wax mm. li ñuy dépenser bu ñu gagné trophée mm. peut-être garçon yi boo gisee engouement bi amaat dernière année yi baal bi moo tax baal bi la moo tax les gens veulent aller au moins suñu africain amoo visibilité y a beaucoup de bu dee modèle boo xam ni sax am na ci des choses yoo xam ne d'accord ma ci man personnellement mm-hmm. mais au moins ça dina indi indi na beneen engouement mi ngi jaay kay indi na beneen engouement ah, et que le plus souvent boo yi koy joué ñu ci bëri maximum dinañ am contrat dem joué en Europe bu ñu réorganiser parce que américains yi jógee état Amérique ñëw Afrique bëgguñ organiser ñu suñu suñu basket en Afrique ñun sax suñu gàcce la ci ñun ah moi je gàcce ñoo lay jox sax équipement. oui ah non ñoom comment ils organisent baal bi mais après da nga naan FIBA Afrique lu muy jëriñ. donc ça veut dire que ñun quelque part aussi ñun dafa mel ni ñoo bëggul aller vers de l'avant. Hmm. et alors que wallaahi c'est pas jaable c'est pas. compliqué mais solution ci côté boobu yan mécanisme lañ mën a teg man dafa nekk loo xam ne lu yomb laa wax ah. mooy d'abord comment financement du du sport. basketball bi ma wax bi ma nekk comment financer le basket. Hmm. comment c'est-à-dire aujourd'hui il faut mettre sur pied au moins une structure boo xam ni day créer benn basketball d'élite boo xam ni day au mois chez les garçons on peut avoir des clubs yoo xam ni mun nañu am day am cahier de charge maintenant fédération derrière ce qu'il va faire c'est de trouver des financements mun moom mun na doon bañ ay moyens boppam mais il peut trouver des par exemple ay bailleurs des gens yoo xam ne par exemple sur les droits télé je sais pas je, je réfléchis mais, comme mais, ça mais, sur les sponsoring, sur beaucoup de choses. Excuse-moi, ben, ben parenthèse. C'est dommage que ne euh, genre yi nii genre wax yi nii proposition yi nii c'est la première fois ma koy dégg ak basket Sénégal ni mu yàgg ni mu nekkee pays de basket. sur le plan international ñu koy tudd fu ne moo xam ci côté club moo xam ci côté équipe nationale Sénégal góor ñi wala jigéen ñi avec le championnat ak joueurs yi nga xam daf koy génne ñiy dem Europe di ñëwaat ñu xam leen sur le plan international mais proposition yi mosuma ko dégg au sein de la fédération wala boog des gens yoo xamante ni ñoo bokk ci ñoo bokk ci foot ci basket bi quoi mosuma ko dégg quoi non c'est mooy li moo c'est-à-dire tamit amul ay ay wuruj ay njaaj ay mafia yooyu noonu non en fait problème problème d'ambition la c'est un basketteur qui parle avec moi parce que ki nekk ci régie bi réalisateur bi dama lay expliquer basketteur bi dama lay expliquer <laughs> loo gis hmm. ambition la wallaay laa jël kii man moo ñëwee jël ville de Dakar hmm. daanuñu fay xale yi dara hmm. premier salaire ba ma ñëw tëf ñu yéeg première division dama leen leen commencé salaire trente mille ki ëppale woon soixante mille la. te kooku dem na ba jouer WNBA. ba te dis ah c'est-à-dire que lépp ambition la la personne. boo yemalee sa bopp fii foofu nga yem. bon maintenant la ambition aussi da nga koy encadrer. xool ko ne man fii laa bëgg a jëm. oui mm. chemin bi ci war a dem léegi léegi léegi léegi la. et le financement du basket compliqué wul. Mm. compliqué wul il suffit d' abord rendre le produit attractif. Uh-huh. cest à que mooy que Marius Ndiaye bu fa match yi amee muy fees public bi ñëwaat comprendre nga. Mm. am derbi yi en xam nga engouement bi ñëw. après mm. les autres vont venir. Mm. les autres vont venir. le sponsor moom li ko si ko soxla boo gisee làmb ji bëri woon sponsor popularité bi la. <laughs> boo gisee football bi c' parce que c' est mondial moo gën a populaire donc aujourd'hui il faut rendre le produit attractif après maintenant nu ngi koy du ma ne c'est c'est du compliqué wul. Mm. comme tu dis il faut que ñu toog travail sur le financement du basketball. Mm. fekk defuñu loolu toujours routine bi la ñuy def nii rek. mais mm. président man jàpp naa ne itam euh, li nga wax ni lu am solo la mais jàpp naa ne itam les clubs yi nga xamante ni ñoom nooy gérer euh, xale yi club yi aussi il est temps pour que ñoom it ñuy travaille avec les sponsors parce que. Mm-hmm. sponsor tey jii foo mënti toll fu affaire yi mën toll sponsor itam moo ko fay yóbbu. Hmm. parce que làmb ji tey wax nga léegi joxe nga exemple làmb làmb ji toll na moment boo xamante ni sponsor yëpp dañu daw wut si leen. parce que ñoom euh, ñi nga xamante ni nooy nooy dem ci ci la ñi yor làmb ji. yóbbu woon niveau niveau niveau promotion euh, euh, kii. làmb ji foo xamante ni ak ak ñi nga xamante ni c'est c'est sponsor dañuy ñëw par force. Hmm. parce que ni ñu ko liggéeyoon la. Hmm. mais aujourd'hui bi ñu demee ba nga xamante ni euh, promoteurs yi commence nañ am problème sponsor yi dañ daw delluwaat donc moi je pense que mm-hmm. yéen tamit yéen tamit club yi war nañuy am au niveau des clubs quelqu'un qui qui en charge qui en charge mm-hmm. tout ce qui est promotion loolu laa expliqué c'est-à-dire que su su ma nee la que dañu war a rendre basket bi attractif pour loolu la mm. c'est-à-dire ça si ça devient attractif les autres vont venir ah oui parce que bi mu mel nii mais man su ma doon spon mais boo ñëw basket xam ne boo ñëwee dugg salle Marius Ndiaye du mu am cent personnes mm. c'est pas intéressant match yoo xam ne d'avance xam nga ne équipe bi day dóor équipe bi vingt points mm. comprendre nga alors que bu amoon benn nouvellement de toujours est-ce que li wax championnat d'élite boobu ngay wax du mais mooy solution. kooku solution la. Mm. mais loolu même ko defee. te créé wuñu attractivité wu euh, euh, basket bi ça pose problème c'est-à-dire que. Mm. il faut faire revenir les gens à Marius Ndiaye. Mm. parce que basket basket am na public am. match yi comme tu dis si on a dix wala dix au moins yoo xam ni bu ñuy joué à l'avance doo xam diw mooy gagné diw. Mm-hmm. voilà donc mu nekk ay derby quoi mu nekk voilà mu nekk mm-hmm. équipe yi xaw a développé fii da ngay gis équipe ci championnat bi. à la limite quelques quatre cinq matchs ngay xam ni fii match bi day complété yeneen yëpp à l' avance. Mm. tu sais tu sais tu sais que ni voilà yaa. par exemple tu prends Ligue de Dakar. Mm-hmm. de football ah. Ligue de Dakar de football arrivé nañu léegi que au moins chaque. Euh, journée dana am benn derby boo xamante ni benn télé de la place da koy wane. Mhm. et loolu c' beaucoup d' parce que tey jii sponsor yooyu ñëw dinañ gis seen bopp ci télé bi. Mhm. aujourd'hui si toutefois Ligue de Dakar basket. Mhm. amoon na loolu c'est-à-dire signé avec un média euh, benn média boo xamante ni chaque journée. Euh, dana am benn derby AS Ville de Dakar Duc wala AS Ville a Dakar Douanes ñu koy wane ci télé mais lé sponsor yi ñooy dawaat. am bande annonce avant parce que sponsor xam nga lu mu bëgg. Mm. fés. Mm-hmm. dafoo bëgg fu ñu koy génnee ci télé bi dafa bëgg télé bii di ko génne télé bee di ko génne kee di ko ah. génne donc tant que sponsor bi jàpp na ni. Mm. moom am nga média bu la accompagner. moom mm. day ñëw. maintenant nag liggéey boobu il faut que ligue bi def ko parce que ñun on parle de de de la fédération. certes c'est vrai mais fédération bi avant fédération y la ligue de Dakar. Mhm. oui mais championnat bi fédération moo ko. bokkul ak fële. fii ligue bi mooy mooy organiser journée yi. waaw mais fii c' est la fédération qui organise. Ah, championnat am na ligue de Dakar am na ligue de Dakar. ligue de tey jii euh, su su fekkee fexee na ba am promotion parce que ligue de Dakar bu amee promotion am ay ay bailleurs. jàpp naa ni dafay gën a yombal liggéeyu fédération. non Ligue Dakar à part la petite catégorie ay coupe la am avec de parrains. waaw par exemple coupe du maire coupe de la ligue coupe de la ligue coupe Saint-Michel. waaw est-ce que jàpp nga ni coupe du maire. tey jii uh-huh. coupe du maire euh, coupe maire de Dakar la. te jàpp na ni maire de Dakar comme ni koy Pape Maguette waxee. Mm. toll na tey jii foo xamante am na lu ñu ko doon rendre attractif. mais dafay ànd ak sponsor yu bari. yu bari sax. yu bari yu bari. mais loolu peut-être mooy li mu wax yooyu c'est conjoncturel. Hmm. moi je veux que ñu créer quelque chose. mu nekk loo xamante ni lu taxaw la structurel loo xam ni ça demeure. une autre compétition boo xam ne bu am niveau la. ñoo organiser benn coupe finale bi fees. chaque année benn sponsor bi indi les moyens ainsi de suite. voilà mu jeex. luy sax luy sax la ñu wax quoi luy sax. waaw loo xam ni day structurel. waaw d'accord naa li ko. mais li ñu war a créer quelque chose de structurel. Mm. loo xam ne bu ñu ko tegee un club bi dañ ci gis seen bopp fédération bi elle-même dina ci gis boppam. les annonceurs yi nga war a ñëw tamit nañ ci gis seen bopp. comme NBA bi rek. voilà loolu boo xam ne quatre fois lañ koy joué. cinq fois ci année bi nekk nekk ñoo koy diffusé. pour nga ah. nekk champion bi il faut ah. gagner quatre fois. waaw quatre fois sur sept quatre fois quatre fois. donc voilà ici bon peut-être championnat commencé nañ il faut gagner deux fois. bu <laughs> jeex tàkk comme je dis. Hmm. foog ñu nangu. Hmm. toog waxtaan ne nan la ñu war a financer suñu basket yi. mais que def ngeen ay proposition loolu la fédération tout temps tamit ñun du jiite basket. non maanaam ah, y y a des délégués on a y a des y a yëpp am nañ ko. sookul ah, bi ñoom ñoom hmm. ñoo war a joxe impulsion. effectivement cest à man président club man mënuma ñëw changer les règles. mais c'est une proposition. mais je fais que j'ai fait ba depuis ma duggee ci basket bi maa ngi koy wax. Hmm. je dis que lépp ambition la. ambition la. ah mission la man ba may démarré nee naa la xale yi trente mille cinquante mille soixante mille. aujourd'hui yaa ngi ci ay cent cinquante mille. deux cent cinquante man cent cinquante. non kii mi ngi may ay salaire yi eh, Ba comme ni nga ko waxee début bi difficile woon na bokk nga si ñuy doon jël car rapide yi dem entraînement. waaw. Ndiaga nga waaw fan nga ko doon jëlee euh, kii. fële ne nga ko doon jële bon dama doon dox ba ridis ridis <laughs> dama doon dox ba pour mu gën a gaaw quoi douze bi laa doon jël hmm. mais douze bi dafa doon yàgg ci yoon bi dama doon tardé tout le temps nga doon dem entraînement ban maa ngi doon dem entraînement 17h. 17 waaw des fois nga tardé. des fois ma tardé des fois am ki après sama benn xarit jox ma benn solution ne ma léegi nañuy jël Ndiaga Ndiaye. Hmm. Ndiaga Ndiaye ridis nga koy jëlee noonu. ridis mais vite fait appéage lay jaar. ah wàcc Colobane. bu wàccee Colobane nga. nga daw euh, jël cinquante neuf cinquante quatre. du moins cinquante quatre mu wàccee l' université voilà. juste Colobane am na ay car rapide yu taxaw foofu yoo xamante ni cent franc ngay fay euh, kii bi gël bi voilà ba université mhm. nga dem entraîner boo paree tamit même chose retour bi waaw dafa dem ba Colobane ay vingt deux heures vingt trois heures bon ay naa oto machine laa yor parce que oto moom dafay gën a métti quoi <laughs> waaw machine moom ak embouteillage moom. embouteillage moo tax quoi te géej daa xaw a sori. tey boo demee ba jël le trophée meilleur marqueur quest que ça te fait personnellement. am satisfaction bu énorme hmm. waaw di encore di remercier ñi ci doon liggéeyal ñëpp. Hmm. waaw parce que doon naa xëy heure bu ne di entraîner. Hmm. yàgg di ko gëm nag. xam en plus nit ku nekk si li nga nekk yaakaar naa yaa ngi ñaan euh, benn bés ñëw ñu jox la ci. ñu récompenser la ci. Mm-hmm. comme joueur yëpp. Mm-hmm. danga nga daan dem final tout le temps di gis sa morom yi di jël et tout. yàgg nañ gagné ay final nag jël naa lépp ak duc. Mm-hmm. trophée yëpp jël nañ ko ak duc. waaw mais. titre individuel nga doon xaar. waaw individuel moom. xam nga li muy def si rek moom moo xam waaw sax coupe bi ngeen jël si non sa bopp mais coupe bi moom madame nee na coupe bi moom seen jëkkër li sama yoon ma nekk la ah moom bu dafa am soxna et puis jabar ba waaw non foofu laa sama laaj sama sama laaj damay tëj sama machine damay tëj sama man seetlu naa jaari nii yow seetlu naa basketteur yëpp ay ay ay jabaru basketteuses lañu am. Ah, basketteuses yi ay jëkkëru footballeur lañu am. xam nga dafa ma jaaxal quoi non c' est bizarre. c' est bizarre ah. moom Mohamed Mohamed Faye dama ko fekk këram naka de moom basket basketteuse la takk moom it. Mohamed Faye <laughs> Mohamed Faye maa ngi lay nuyu bu fekkee yaa ngi may seetaan France. mais souvent xam naa li ñuy tasante ci milieu bi. waaw lay lay demee. yéen c' est vous dans vous ah. voilà ci milieu bi léegi après nga takk yooyu it nga takk euh, basketteuse après nga yóbbu ko garage. mi ngi joué mi ngi France mi ngi joué waaw mi ngi joué Metz. ok d'accord que am na chance ñëw équipe nationale. nga yóbbu ko garage. non yóbbu ko garage. mooy ko fa ñu def ko femme de ménage. non mi ngi continué di joué. bu takkee. généralement mooy euh, voilà da doon ñaaree ngi nii di jouer ba tey. ñaari demul garage loolu nag ba non barewu ci. pour man beneen garage ngay wax. déedéet garage. Ah, bu commencé ah, ay déglu quoi. il a répondu moom il a répondu ne dama non mi ngi France. non bari na ci de. voilà ah, non mais kii mi ngi jouer. am ci kii te ñoom ñëpp a ngi jouer. mais kii mi ngi jouer ba xam naa ci usal ñu bari ñoo xamante ne dañu leen. waaw ñun peut être dañuy dem ba jeexal. waaw mais moo jëkkër mënul tere nga def. mënul tere mais nag naa la wax leen itam ñoo yëy hmm. di takkante seen bi parce que boo amee ku dul sportif hmm. la compréhension li muy jëkk def mooy man de xam nga lan la man sonn naa mun ma di la xaar ci kër gi ngay dem di entraîné jeeg wala da may toog di hmm. ma toog di xa def toog da toog wala nangam sangam su ko hmm. defee ñu ci bëri seen carrière yaa ak tamit sportif bu warul bëri ay doom la ñuy wax donc ñu ci bëri seen carrière donc man je suis parfaitement d' accord que même si yàlla Abou Camara daan na wax ni théâtre kat yi dee leen si théâtre kat yi football kat yi football kat. journaliste parce que xam nga lu tax niveau de compréhension. amante ngeen de compréhension parce que yow boo takkee jabar journaliste bu toogee ba quatre heures du matin wàcc mais du am doo am problème. mais bu fekkee nag koo xamante ne xamu ci dara daal la ci booy fëgg bu la nee allo sax nga ne ko bul ma woo. waaye bu match bi jeexee dana xam ne match bi jeex na. waaw. <laughs> Moustapha du dem naan damay seet. non mais parce que xam na heure ay match bi jeexagul damay. non dañuy entraîné ji waat mu ne la loolu amul fenn. <laughs> waaw mais au de ko. non bi nee na dañu war a def benn seen biir. coach bi nee dañu war a def benn kii parfaitement d'accord. Mm, mm. donc kon tey jii. Mm. bokk na ci ambition yi. nga dem fekki madame. waaw am contrat dem fekki madame Diop. parce loolu aussi eh, parce que laaj naa la léegi ne la est-ce que madame am na chance ñëw équipe nationale. des tey bañ a dugg si yooyu moom na dem états-unis madame nekk. waaw non mais loolu aussi man sorante li may laaj mooy est que madame am na chance ñëw équipe nationale. ah mais bien sûr comme toutes les joueuses. la et am na sens génn na mu ngi France di basket. man xam naa ko elle a une bonne taille donc. Euh, hmm. su liggéeyee. xale la quoi du mag la la. Ah, ñëwagul du mag. non non ñëwagul. loo hmm. ah, koy ñaanal mu ñëw parce que loolu itam boo amee sa doom. Hmm. mu génn dem dem fanel li ngay ñaan yàlla mooy mu ñëw la la muy wane foofu. ba ñu jël ko mais mu mu wane. ko eh, eh, yaa yaa ton ami bu lay euh, jàllale benn salutation. du euh, dégg nga Sàmm Biagé. ah Sàmm Biagé la moo wax de. waaw waaw waaw c'est coriandre il a parfaitement raison parce que loolu tur bu yàgg la buñ ci na nee euh, ma tamit Bombardier a aussi honoré euh, le le Sénégal loolu je l'avais oublié. Ah, mooy MMA bi son combat bi amoon le week-end passé semaine bële passé Bombardier tamit ñu koy def. un clin a un clin ah eh, ñu koy nuyu bu baax a baax merci beaucoup Sambou Biagui ah. waaw ah, Sambou Biagui merci beaucoup jërëjëf sama grand sama doyen. waaw ah, bokk na ci ñi nga xamante ne daan borom borom go to Sonata. voilà euh, léegi Tafa. yow xam nga Sonata. xam nga Sonata. waaw go to Sonata. waaw yaa ngi foofu. waaw ñu bàyyi ma mu sedd. waaw ah, bàyyi mu sedd c'est comme ni may bàyyi euh, kii. ni nga ci def tournoi judo ba mu sedd. waaw ndar waaw waaw <laughs> Sanada fan la Égypte. <laughs> waaw Sanada fan la Égypte. ah Égypte boobu. fan la yow la woon Sambia gi ak. ak bare woon na kay ak ah, ah, euh, yow gaaw nga bàyyi affaire bi de euh, moo xam nga bàyyi nga ne Tafa. waaw parce que xam naa ne su ma bàyyiwulee man deel ma a bu baax xam naa Sambia gi kaani la ma dalal ko wax te bëggul wax ko. <laughs> ah alors Tafa. Euh, yaa ngi ci yoon bi. Hmm. est-ce que am na staff parce que man bëgg naa trop jour buy am hmm. staff ci ginnaawam hmm. parce que boo jour boo xamante ni dafay xalaat pour nekk professionnel vraiment war nga am staff boo hmm. xamante ni am ménager lépp nga xamante ni boo demee rek boo boo boo ku lay seet si rek ci ñooñu lay jaar te boo demee aussi ñooñu dañuy des liggéey est-ce que loolu am na waaw loolu mën naa ne am na parce que dul nekkagul loo xamante ni teg nañ ko quoi. Hmm. mais mun naa ne am na parce que tey jii yaa mes amis sama entourage ñi ma jege samay coach sama papa. Hmm. tout le temps su ma amee ay yenn propositions yi wala dara ñoom laa si njëkk a waxal. Hmm. waaw ma jël benn décision saa ñoom. waaw. mais tey mais tey war nga am am nga nag war nga am benn ménager xam nga nag. gars staff la du waaw loolu staff la am na lu am am nga encadrement. ñu lay conseiller xam c'est au niveau familial. mais au niveau. professionnel. Mm. Mm-hmm. ah au niveau. au niveau professionnel. voilà merci agent bi moom mooy gérer loolu. agent moom mooy gérer les contrats yi affaire yi. am nga agent voilà. Mm. boobu bu lay gérer nii jamono nii donc léegi fi mu toll nii mooy am nga ay sollicitation li li si des léegi mooy lan. li si des mooy waxtaan ci xool ba xam arrangé na mooy tout. <laughs> su ma arrangé rek kon ba xam arrangé na. Ah, <laughs> non ñoo ngi ciy waxtaan daal wala ngay puluf. ñoo ngi ciy waxtaan ak sama sama sama Ali gërëm Ali ñetti fifteen. <laughs> yemal euh, président président président président mm-hmm. euh, performance yi ngeen def macha allah da ngeen di waajal euh, compétition africaine ah ville de Dakar. waaw parce que euh, boo am na y' a un mais ah. am ngeen. y' a un mais. Mm. parce que daaw dañu dañu demoon parce que. dañu toog au niveau Sénégal presque dix ans yoo xam ne amul club bu dem. daaw ñu gagné championnat bi ne bon on prend nos moyens propres pour y aller et ça a été très coûteux quand même. propre oui du club. ah donc on est parti. état jàppale wu ñu fédération jàppale wu ñu kenn jàppale wu ñu. Mm-hmm. ce qui fait que ni bon impacté na même si nos ressources. par rapport ak euh, Coupe d'Afrique parce que c'était à Maputo c'était très loin. bi. xanaa dem bi concerné wul fédération. non normalement ni mu waxee nii mooy que fédération dafa dégager ay responsabilités. attends maa ñëw mais je peux pas comprendre je peux pas comprendre parce que li nga wax noonu il faut que ñu ñu laaj la ci loolu. parce que kiy toog di seetaan moom loolu da koy da koy da koy dina ko. dina ko jaaxal parce que un club buy dem. nekk champion du Sénégal mhm. la fédération sénégalaise euh, de basketball décerné na loolu yow booy dem war fédération war na ci dugal war na ci dugal amul benn accompagne moom laay wax bàyyi je je j'y mm. donc parce que FIBA Afrique mooy organiser coupe d'Afrique des clubs mm. champion mm. bokkul ak bel bi nga xam ni bel bi c'est voilà c'est la NBA qui est derrière qui subventionne waaw de donc boobu c'est c'est très assez facile mais ici on est parti avec nos moyens. Maputo lañ dem Mozambique joué compétition bi on est terminé cinquième je pense. Hmm. cette année-ci on est on est champion. on dit que écoute ñun mun dem. Hmm. on va hmm. Mais au moins, il y minimum que l'État fait, surtout à travers le ministère des pour les clubs. Et la, fédé, et la fédé aussi. Et la fédération, c'est donner des titres de voyage au moins. Hmm. Chaque jour, nous avons beaucoup. Nous avons des de voyage. Tout ce qui reste, nous pouvons gérer sur le hmm. bon. Maintenant, si nous ne nous donnons de voyage, serait presque quasi impossible. Ok, maintenant, j'ai envie maintenant de vous une question. C'est-à-dire, euh, parfaitement raison, ce que vous Et je suis parfaitement d'accord avec Pape Maguette aussi, parce que fédération de am part de responsabilité. Effectivement. Alors, est-ce que maintenant, par rapport à ça, bëgg nañ dem mais nañu am ay mais maintenant nan ngeen def maintenant ak la Fédé pour am ay titres nan ngeen def ak le nouveau ministre de sport. j'ai écrit un courrier. j'ai écrit une lettre adresse ko ministre des sports jaarale ko fédération. quand est bon mu def deux semaines pour le dire que on a l'intention d'aller au championnat d'Afrique mais daaw dañ ci sonn parce que on a tout financé euh, suñu bopp cette année-ci on sollicite que état bi accompagner ñu may ñu ay titres de voyage pour nous permettre au moins li des ñu gérer suñu bopp hmm. moi je pense que tey loolu mooy condition bi ah, nga fay ak ak ak waaw euh, j'ai dama j'ai écrit au ministère à travers la fédération parce que ñun club la bind du ma bind directement bi dama koy jaarale fédération. maa lettre je l'ai écrit maintenant retour amaguma retour. non amaguma retour amaguma retour cette semaine peut-être qu'ils vont me répondre façon euh, la fédération suit ce courrier là parce que plus tard que deux ou trois jours discuté naa seeg ñoom. donc il suit ça. Est-ce vous, avez demandé une audience avec euh, le président de la Fédération sénégalaise de basket qui est baba Babacar. mais bien sûr on se parle moom il est du basket loolu moom. même su ma ko soxlaa non une audience ko tey jii lii moo fi ne. xam na lu fi ne. voilà on lui a xam na lu fi ne wax nañ ko ñun fi ñu taxaw. Mm-hmm. wax nañ ko conditions yi ñuy demee. et on veut y aller. amul promesse de sa part. non parce que décision bi dépendre ci moom du moom mooy jël joxe titre yi. Ah, c'est ministère mooy joxe titre lu mu mën mooy dem. gis ministre bi mën na dugal aussi xaalis. bon est-ce qu'ils ont ces moyens je doute ah am nañ. moyen yooyu <laughs> am nañ moyen bi. lép nañ lépp ñëw ci li nga waxoon lépp day ñëw ci li nga waxoon sànq. am nañ moyen c'est une question c'est une question de volonté c'est une question de volonté. tout bi man laay wax. parce que si je dis ils ont moom. tey jii la Fédé am na. non ni ma gisee ni ma ils ont des partenaires. am mais partenaires yooyu moo leen permettre xam nga dama newoon pour défendre leen. waaw mais partenaires yooyu moo leen permettre ñuy financer championnat bi moo tax ñuy voilà di. di mm. financer coupe yooyu di di def yenn dépenses yi petite catégorie ñu jëleen en en Afrique en en en charge tout ça je connais un peu c'est pour ça que je dis que. gis nga le débat de fond la góom bi bu ñu ko xoosul def ci alcool. traité ko ba mu normal. day ñëwaat ko nëppal rek mooy c'est-à-dire que le problème c'est le financement de notre sport. c'est-à-dire que tey aujourd'hui muy fédération. muy ministère muy tout le monde il faut que les gens sur table mm. waxtaan xool suñu sport nan la ñuy koy financer pour ñu dem à de l'avant mm. mais sinon chaque fois on vient on répète la donc su ma la dégloo bu baax mooy yéen mën ngeen jël hébergement ak la restauration ak waaye ak l'engagement et tout ce qu'il y a ñoom ñu jox leen des billets billet d'avion rek lañ leen ñaan ah loolu la yomb loolu moom yomb na loolu ngeen ko am ko daal bu joxee billet d'avion dina alors euh, beneen sama dernière question laa bëgg a sërxal de. léegi yow yaa ngi ba bëgg yow mu mucc. waaw boo waxee kenn dootul. waaw boo waxee kañ moom moom après ñu ñëw si bu sabaa euh, président. oui ngeen yëpp. Mhm. en jigéen ñi. Euh, mais sama problème mooy day ndax seen entraîneur. <laughs> non loolu. pourtant man moo nekkoon sama sama kii de parce dama ko dégg. non entraîneur bi lañ daax pour la alors que c'est trop non. dañ koy bàyyi rek dañ koy bàyyi. amatul jàpp naa rek yow kay déglu ko rek. nu nu nu répondre détail par détail. parce que am na benn moment. <laughs> Hmm. le coach parle aujourd'hui demain le président répond je ne sais pas le président ou bien voilà ah. parce que tout da ngay gis tey coach bi bu waxee sur benn site hmm. nga gis suba ñoom ñu tontu mais si tu regardes li ñu bind si si li coach bi wax ak li li génn si bureau bi mm-hmm. ça revient au même mm-hmm. donc au moins te bu ñu defee émission bi ba mu jeex te lii waxuñu ko sénégalais yi waaw léegi ko rek mu doon aja président pourtant wax na ko ah def club bi génn na communiqué mm. on a expliqué mm. c'est-à-dire il faut comprendre ni ñuy fonctionner mm. c'est-à-dire club la maay président bi am naa bureau bu nekk sama wet sur les décisions administratives ñooy jël ñooy waxtaan. Hmm. on a un directeur technique. kii est tout ce technique c'est lui le responsable. Hmm. mais sur cette décision là. Hmm. ñun bureau bi ñoo toog mais il faut sur par rapport ak jigéen ñi joxaat beneen. voilà joxaat ko beneen engouement joxaat ko beneen kii parce que y avait beaucoup de routine. c'est que il fallait qu'on change quelque chose. on a décidé on l'avait décidé man maa jël directeur technique bi ne ko y a des profils bu ñu ñëwoon dinañ mun indi beneen. beneen dynamique beneen dynamique ci équipe bi. jigéen ñi ban dynamique ngeen xaar non parce que xam nga dañoo dañoo après dafa am lassitude après bon les leen challenge. dafa mu am des fois bon. moi je dis que aujourd'hui équipe bi boo leen xoolee ñaari finale yi ñu ngi joué dafa manqué woon challenge boobu parce que bon dafa demoon ba pour ñoom routine la woon quoi donc ñun ñooy ñooy yi. routine jël coupe. waaw ah, waaw waaw mais xam nga rek boo boo dee comme dara lu ñuy wane. c'est que c'est à sa façon inconsciente. donc nit ñi nit moo moo moo xaw a mel noonu nit day am toujours lu koy pousser. lu koy pousser pour mu aller vers de l'avant. pour mu am challenge toujours challenge. mais dañu gis ni loolu xawoon na manqué. bon c'est notre mun nañ juum mun na nekk dëgg. Mm. mais c'est notre ñun loolu lañ gis. Mm. boo ko gisee moi j'ai parlé au directeur technique je lui dis que chez les filles il faut changer de coach. Mm. on l'a décidé en bureau bon maintenant le comme moom le directeur technique coach bi fa ne woon moom am nañ affinité parce que moo ko indi ci club bi mhm. mu nekk quatre ans adjoint mu mhm. juge mu jóge fa di dem direction technique nationale mu dénk ko équipe bi mhm. donc pour moom en tant que être humain mu juge fa noonu day xaw a metti ci cadre boobu la ko proposer benn solution peut-être solution boobu mu ko proposer moom moo ko convenirul moom après. chacun a pris man solution la ah. mu nekk directeur technique bi wala. non solution bi ñoom ñaar waxtaan nañu bon c' est pas le c' est pas le moment de indiwaat débat bi fii quoi. waaw ah dàq bi comme ko. dàq ñi ngeen non non mais mais non non bañ ko defee daal. le fait que loolu la ko proposé arrangé wu. Ah, arrangé donc nous on a on a on a on a pris acte dem na daal waaw daal dem na. waaw mais dàq ngeen rafetal rek mais dàq. man ce que j'ai ce que j'ai compris ce que ce que je ne comprends pas euh, tàggatoo bi moo moo ñu dese parce que bi ngay wax naan dafa am lu dees xaw ma beneen dynamique ñëw man pour man pour man dafa am loo xamante nii da ngeen bëgg a demaat ci beneen ère mhm. une nouvelle ère ngeen bëgg a mu amaat beneen défi boo xam ne da ngeen koy samp keneen ñëw ñëw défi défi boobu yéen ak ñoom yéen ak kooku ngeen lay doon. man su ma comprendre un peu loolu loolu laa bëgg comprendre quoi. mais loolu la sax. ça veut dire que li fa nekkoon dem na ba nga xamante ni da ngeen ne il faut qu'on change ñu demaat ci beneen ère. man mais ni mi ngi jël ay trophée moom wax. dëgg yàlla une équipe kii kenn du ko changé. ñii ba ñuy jugee dugal ay panier yu bëri moom kenn du ko moom. ba ñuy jugee ba ñuy jugee ci club bi. waaw nañ trophée année boobu benn trophée rek moo leen manqué woon hmm. coupe du Sénégal hmm. mais dafa tolloon que ni période boobu club bi dafa war a révision la dafa war a. wala di ngeen ñàkk ñaari final yu mujj yi. non du loolu c'est-à-dire que ñaari final yu mujj yi. loolu ci ci la bokk. mais du loolu kase. ci la bokk kañ. c'est un truc global. ça non moi je vais pas vous dafa di loo xam ne ñoom dañ ko. c'est lu yàgg. léegi nag dafa final yi daf si tombé mu tombé ñaari final yi daf ñu gën a conforté daf ñu gën a conforté ci sentiment bi ñu amoon ni que ni fii les filles il yee beneen air daal moo war a ñëw voilà beneen air moo war a ñëw alors euh, Moustapha lan lan ngay tàggatoo yow moom ñu lay xaar mhm. ñuy xaar sa prochain club bi nga bi nga war a am yàlla na si yàlla def jàmm yàlla na la jik et on te souhaite euh, beaucoup de bonheur beaucoup de réussite sur le plan national et international waaw bu buñ ne bonheur moom bonheur moom xaalis beeg njëkteeg li ngay yaakaar yépp mi ngi ci ah, ah te yàlla la yàlla sàmm yàlla na la yàlla lafal cat yàlla na la yàlla sàmm bu baax a baax baax nee nañu doomu ñay kenn ko ñaanal rëy gudd fan nga koy ñaanal waaw te gis nañ fi nga teg si surtout les débuts bi nga ko waxee ba fi nga àgg mm. xam nañ ne ne ñafe nga ko ñafe nga ko tu t'es battu en tant que jeune et un bon banlieusard un bon banlieusard ñafekat lay doon. et ça fait dafay dafay nekk fierté wu Géejawaay xam naa tey jii nii waa Géejawaay yëpp nekk na seen seen fierté ah. Mm-hmm. te xam naa yaa ngi motiver jeune yu bëri bi ñu la gisee nga nekk meilleur marqueur. Mm-hmm. ñoom ñëpp xam naa ñu ngi bëgg a def parce que sa waa kër mm-hmm. am na ay am nga yaram. waaw am naa benn rak xam ah, naa kii Mohamed Mohamed moom a ngay basket. ah man dama ñëw dama ñëw këram fekk booy di def entraînement man ko ñii ñan la alors yaa ngi hmm. waaw maa ngi motivé pas hmm. am na sax ay entraînement individuel yu may créer ma ak sama xarit bëri na lay Zingis. Hmm. pour pour pour jeunes yi nekk sama sama koñ quoi. Mm, mm. des fois de temps en temps dañuy créer ay yenn foofu juste Amadou Bari. Amadou Bari Amadou Bari ci esplanade bi noonu rek. ok ok dañuy ut yenn heure yoo xamante ni. Mm. tout le temps booy dañuy ñëw. ñuy euh, jël si suñu xam-xam tuuti di ko partager ak ñoom quoi. voilà. du ñaax tamit ak yeneen aide yoo xamante ni xam nga hmm. comme ñun rek ba ñuy débuté des fois nga am ay grand yoo xamante da ngay soxla dàll wala dara wala équipement ñu jëndal la ko wala ñu hmm. may la seen ancien dal yeeg hmm. affaire yooyu donc yaakaar nañ tamit looy gën a dem aussi da nga war di rendre la monnaie quoi waaw ak ak jeunes la yàlla jàppal loolu yëpp ba nga nga samp benn académie bu mag biir Guédiawaye loolu laa la ñaan et puis loolu maa ngi lay wax nga bàyyi ci xel pour jàppale la euh, jeunes yi xale yi am na xale yoo xam ne amuñu métier amuñu dara lu ñuy def nga récupérer leen ñu leen di entraîner initier leen ci basket ñu devenir quelqu'un man hmm. loolu maa la ci bàyyi comme ni lay ñëw lay ñaay def ci yow quoi loo xel ci hmm. lool de xale yi deful dara hmm. des jeunes yoo xam ne defuñu dara nga gis leen ñuy dox di dem nga xam ne ñii ku leen defar tuuti ñu am dara nga récupérer leen dama bëgg nga récupérer ay xale yoo xamante ni boo leen seetaanee safaan lay am loolu laa bëgg d'accord projet boobu noonu ah. commencé nañ ko sax mais xam yëgagul fenn fii rek. mais incha allahu rabi loolu moom moo nekk suñu. dëgg comme ni ngi sa xel. Mhm, xam nga li ma lay wax bu baax a baax a baax. si parce que ci banlieue bi laa juddoo. banlieue <laughs> nañ bu baax ah, li may wax xam naa ko te surtout mhm. jeunes yi ñu ngi découragé jël yoonu gaal am na ñoo xam ne boo leen motivé ci côté boobu noonu di a toog. si euh, te surtout club yaa ngi fi. ñu jaay leen waa ville de Dakar rek. <laughs> <laughs> ma bàyyi la nga tàggatoo ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw bon di leen euh, remercier ci invitation bi. Mhm. waaw ah, wax dëgg yàlla am nañ contentement. partage ak yéen plateau bi mm-hmm. tout. Mm-hmm. voilà di sant ñëpp. Mm-hmm. di gërëm euh, ñi ñu jàppale ba ñu yegsi fii tey. waaw ñëpp nag bàyyiwuma kenn peut-être su ma limee damay juum. ñëpp rek. voilà ak sama waa club. tamit def nañ ci liggéey bu ki yàgg parce que ba ma nekkee xale ba léegi mën naa ne maay dut maay dut waaw mën naa ne jàppeetuñ ma fa sax comme joueur mais doomu équipe bi lañ ma fa jàppee voilà di leen sant ñoom ñëpp. Hmm. waaw bu ma limee damay jum mais maa ngi sant ñëpp daal. Hmm. voilà hmm. di nuyoo passage Nancy ah. coach Nancy coach Nancy maa ngi koy nuyu bu baax. parfait tamit ñu ngi koy nuyu. moom la euh, euh, man instant bi am naa 23 ans. li ñu bëgg a wax nag seen i âge man lu mu ma wax. bëggoon de 23 ans boo demee extérieur déjà. am nga carrière bu gudd bu lay xaar macha le plaisir est partagé ah donc kontaan naa aussi ça fait toujours plaisir mm. de parler waxtaan ci mm. sport parce que mm. ñun au delà de tout on est sportif sport lañ bëgg ñun bu ñu liggéeyee sport ba surtout basket mooy suñu suñu suñu suñu activité bu ñu sañoon basket bi voilà gën a développé voilà ñi ci nekk acteurs yi surtout joueurs yi ci ne mun ci gis seen bopp dimbali seen waajur ñi ci mun a am des contrat yu ëpp yi ñu gañe fii am ko si notre objectif c'est que ça hein, mm. je pense que vivre suñu passion mm. et puis aider ces jeunes là à, mm. à réussir je mm. pense que loolu bu amee rek am nañ satisfaction déwén door fayu la ah en tout cas de tey ren moom sonal la ñu ne bon on yàlla na nga xam ne am. déedéet doon fay jigéen ñi ci góor yi ren moom xam nañu que xalaat nga. <laughs> yéen yéen a dàqulu entraîneur bi est rek. <laughs> waaw évidemment évidemment hmm. on va on va renouveler les les effectifs. ça moom kon di ngeen jënd ay jours. c' est évident waaw waaw dañuy on va on va le faire ah. on hmm. est-ce que jëndul on va le faire <laughs> alors. Euh, jaajëf l' importance mooy rek li ma wax nii am hmm. équipe bu compétitive. boo xam ni dina mun a ñëw jouer ak mag ñi fi ne. bon maintenant joueurs yëpp benn club mu leen jël il faut que les aussi. xam ni li fi nekk ci joueur de mm. qualité mm. benn mënuñu jouer ci benn club foog am ñu jouer fii ñu jouer fële voilà mais ku yaakaar ne mën nga jënd joueur yëpp teg sa banc pour ñeneen ñi affaiblir c'est pas possible. yéen loolu ngeen di def yéen. loolu moom c'est joueur équipe nationale yëpp ngeen. amatul quoi yaay ma bàyyi ne lauréat saison sportive deux mille vingt deux deux mille vingt trois muy roi mm-hmm. euh, na. Mm-hmm. donc euh, pour roi bi am nañu Samba Dali Fall AS Douane. Mm-hmm. donc euh, bëggoon nañ ko invité mais. dem na France. dem na dem la championnat. championnat bi dafa yéex championnat bi balaa moo jeex xale yëpp dem mu ngi noonu donc euh, la reine donc prési moo am reine bi basket muy Ndumbe Mbodj ah. waaw ah, prési moo am euh, ce qui est ce qui est Euh, c'est pas une première déjà mais. Mm-hmm. année bi ñoom mën nañ ne ñetti nominé yëpp ville de Dakar lañ jóge mm-hmm. muy ki ki ko jël ak ñaar ñi topp si moom. muy xa Dumbe Mbow Khady euh, Jorom ak. Euh, Maman mm-hmm. Mbaye donc mais lépp si biir kër gi la jóge ñu ñëw si révélation yi côté góor ñi parfait moo am révélation muy lay Dieng Duc. côté jigéen ñi Juma Berthez ji mooy suñu marraine ah, bi. voilà meilleur entraîneur ñu am Pape Malick Goudiaby muy entraîneur du jigéen ñi. Hmm. Pape Mamadou Gueye pa bi AS Douane. Hmm. meilleur entraîneur meilleur arbitre Boubacar Sakho. Hmm. Euh, meilleur commissariat aussi Grace Diop. révélation entraîneur côté féminin mu ngi jóge Lari Diouf. fële Ziguinchor. Souleymane Badji Diamaguène moom mooy révélation entraîneur aussi. donc ñu déglu waa chez les waa. donc euh, ñu déglu ba xam ndax. couronnement dina am wala du am parce que prévu loolu tamit problème la ñu nommé ay reen ba pare duñu am meilleure équipe amagul waaw ah, waaw loolu non amul meilleure équipe mais on donne juste les meilleures joueuses meilleurs entre reen beeg ak reen ak roi mais daaw ba ren dara amuñu amul dara amul dara dañuy nominer nii rek mais gisaguñu dara xamoo nag ndax nan la ñuy def hmm. problème bi mooy nan la ñuy def soit dañuy nominer bu dañuy récompense bu daaw récompense bu ren bu voilà ñu def ni ñu def daaw rek ngeen daaw bi la ñuy ajji ah, boole ko àjjiwul ngeen seen daaw bi daal boole ko muy benn. ah dina compliqué euh, trop ba tey ñu ñu ñu balaa ma koy fàtte ah positive men ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moo ñu defaral t-shirt yi. Ah, euh, moo ñu ko defar moom euh, lépp loo xam ne jëm ci wàllu defar ay t ay tableau panneau lépp da defar moom tamit mm. mooy defaral ay t-shirt waa Dakar Université Club ba mu ñu gisee rek la lëkkaloo ak ñun jàppale ñu ci liggéey bi. mi ngi noonu suñu bos a ngi nii Ismaïla Mbow la tudd jox jox leen numéro bi Ismaïla Mbow jox leen numéro bi après euh, doyen daal di. waaw Ismaïla Ismaïla Mbow mu ngi nekk euh, Médina rue 11 mm. wetu UCAD. Mm. numéro am 78 016 66 02 wala nga woote 76 026 66 02. yaa mën communiquer. grand bi waaw man euh, maa ngi nuyu déjà ñu ngi doon topp rawatina Ma Ami Gueye euh, elle est ancienne basketteuse. Mm. au niveau de la Médina. Mm. moom lépp luy basket da koy seetaan parce que comme jaari la mel. Mm. Euh, donc xam nga ñoom danoo danoo rasis. ñoom basketteurs yeeg basketteurs. ah, ah. seen biir voilà seen rek donc un clé à ma amie Guèye. mais aussi un, un, un clin d'œil à famille de Pikine et de Thiès et de Saint-Louis du Thiès da bëgg am beneen Thiès am naa te famille Thiès parce que sama frère boo bokkal ndey ak baay ma la fa. Ah, mais aussi di euh, di gërëm ñëpp. Eh, di nuyu ñi nga xamante ni faral nañu di ñu topp di ñu déglu. Mm. encore di remercier la Ligue football. Mm. bi nga xamante ni rafetlu nañu li nga xamante ni waa Leral Sport ñu ngi koy def loolu nag dafay bokk ci li ñuy ñaax. Mm. parce que xam nga dompat sax si sat la bokk. te nit ki booy def dara bëgg nga ñi ñi lay wax baax na defal lii defal lii defal lii kon su nee la baax na te ki la ko wax bokk ci ñi nga xamante ni. ñu yor football bi loolu da nga naan alhamdulilahi rabbil alamin euh, jërëjëf ñi ñi nga xamante ni ñoo ko defal mais aussi di wax ni euh, à l'approche de la CAN leeral sport waa leeral leeral média en général dañ ci def ay mbir yu mucc ayib yoo xamante ni mi ngi ci yoon bi incha allah ngeen xaar nu ñu nag yéen ci yoon wi ñu nag yéen ba Abidjan mais ñu dugg yéen ba Yamoussoukro. incha allah yow Yamoussoukro man <laughs> ñaar la seen biir. di profité aussi di souhaité kenn koo xam ne dafa sori ci man. Mm. Mm. Ah. du c'est pas parce que sama papa ngi fi nag. du ma wax mais sama frère la sama xarit la sama jëkkër la aussi. Mm. donc ma koy souhaité happy birthday muy As Diallo ma koy souhaité happy birthday di la ñaanal gudd fan gis naa taxawaay bi ah gis naa jàppale yi aussi taxawu nga ma comme sa euh, koo bokkal ndey ak baay. maa ngi lay ñaanal gudd fan di la ñaanal wér gu yaram di la ñaanal lépp loo xam ne bëgg nga ko daal maa ngi lay souhaité tout le bonheur champion du monde. donc voilà merci beaucoup. waaw man aussi may souhaiter joyeux ah. anniversaire. parce que waaw non non joyeux anniversaire xam ku ma. gars yi ñoom ñoom jaari xam kan laa koy souhaiter. Ah. moom parce que moom bosom dafa jàll. te waaw sax mos jàll. <laughs> semaine kii lépp may jàll. moo tax nag il faut mu ñu wax ni. <laughs> non jarul jarul wax mention très honorable parce que c'est quelqu'un boo xamante ni. Euh, koo xamante ni dafay raam du la yóbbaale bu taxawee da lay tingoom. Mm-hmm. donc euh, ñoo koy jaajëfal bu baax. baax a baax a baax a baax mais jaajëfal aussi euh, équipe technique bi surtout ah, le euh, le directeur général mm. le PDG mm. euh, Dame Dieng mm. le directeur Birahim Touré mais aussi ñoom Pa Omar ak ñoom ABC waa parce que tey jii bu bu ñun dans des gars di ko wax bu nu fe fësee ci télé bi xëy na ba mu rafet nit ñi ñoo ñooñu rek la ñuy gis. mais ñi ko def. jar nañu jaajëfal. jaajëf mooy ñoom ABC ak ñoom Jiba. jaajëf merci beaucoup nuyoon na wax na lépp man yoon na ma. ABC ak Djiba ñoom amuñu seen fay jaa ngeen jëf merci beaucoup et on se rendez-vous euh, semaine prochaine dimanche incha allahu rabi ak yeneen invité ak euh, li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, yoonu Coupe d'Afrique bi mooy le chemin de la Kana incha allahu rabi jaajëf bonne nuit merci